ci général Moussa Fall bi nga xam ni moo toojal démb ki nga xam ni mooy le président Bassirou Diomaye fay ak ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko mais loolu mooy victoire bi c'était une victoire internationale ndax ki muy toojal noonu moom la attaqué ay cortège am toj ay vitre otoom tibb ko déporté ko delloo ko këram affiché ay ay téléphone am affiché ay këyitam affiché armam lépp photo ko jox ko benn faux compte en état mu partagé ko toroxal na ko ci xeetu toroxal bu ne moo ko provoqué woon buntu këram ndax ay nit yu ko doon caméra jàppalu ko tëj ko ci kaso yi loolu lépp ki nekk ci ginnaaw démb te yar naan nii kookoo toroxaloon waa jooju kooku nekk di toojal Ousmane Sonko lu Ousmane Sonko daj depuis deux mille vingt et ba léegi kookoo ko ko teg kon loolu victoire daru gënu ko rëy sa noonu démb. moo toog tey di la tóojal nga naan ko repos mu naan teg attention prêt muy wàcce donc loolu suñu borom kese ko mën moom kese du kattan du mën-mënu kenn suñu borom rek moo mun def loolu te moo ko def donc loolu victoire bu rëy la moom Moussa Fall lu nekk ci ñaaw teef def na ko ci kaw ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko bi mu doon tóojal démb moo tax il fallait ñu xaar lii moom mois de mais bi day retraité pare woon na retraité na Macky Sall indi woon ko pour mu def sale boulot bi mu def ko moom bu mu paree dafa war donc mois bii nii di ñëw waaye dafa am lu tax ma bëgg a def spécial kii nga xam ne mooy le général Moussa Fall gendarme yi mer nañ trop kontaanuñ ndax foo dem am na ay gendarme yu digne loolu moo tey boo leen tey boo leen gisee Jean Baptiste Tine ki nga xam ne waxoon naa leen ko ci l'affaire Adji Sarr ba Macky sàll dem ba Fuuta def décret toroxal ko à trois mois mu war a retraité mu dàqu fayu ko retraitam moom Jean Baptiste Tine yàlla fay na ko tey ministère jóge na ci général léegi ministre la xoolal lu yàlla def def lu baax rek a wóor def lu baax yàlla day ànd ak yow wax naa leen dee leen def lu baax yàlla di leen protéger te bu leen yàlla protéger benn doomu aadama du leen mënal dara man man protection yàlla rek laa gëm bu may wax boobu Macky lañ ci nguur maa ngi wax ba jële fi Macky Sall ba léegi maa ngi wax kon protection kan laa amoon du nguur du état du dara protection yàlla laa amoon tey maa ngi wax moom dem na te pourtant ba may tàmbalee wax lu ne jéem na ko mais ba léegi maa ngi wax kan la yàlla biram jóob bi ngeen di dégg noonu kooku moo defar armée bi biram jóob moomu dañ koo toroxal Macky da ko toroxaloon dinaa leen expliquer ju ci bari ci ñoom biram jóob bi ngeen di dégg Macky da ko toroxaloon armée bi la defar yokk saleer yi defar yére lépp mu defar ko fekk fa ay dil yu garaaw ñiy jaay ay tenue armée yëpp mu xeex ko Macky Sall da ko éliminer jël ki nga xam ni moom mooy euh, Cheikh Wade pare pare ci Cheikh Wade jël doomu ndeyam bii nga xam ni mooy mbay Cissé kon tey yàlla indiwaat tey biram Diop bi nga xam ne armée bi yëpp ko gërëm Macky Sall toroxoon ko ba mu ne tot tey yàlla indiwaat ko tegaat ko mu jiite lépp donc suñu borom noppi na lu armée bi kontaanuñu gendarmerie nationale kontaanuñu ñoom woo nañ ma ci façon bu ne nee nañ ma li nga xam ni baabakar ture Kewelo def na ko metti na leen metti na leen ba ci kanamu yàlla parce que nee nañ mënuñu nangu koo xam ni doo gendarme sa papa du gendarme dundoo ci gendarmerie dajoo lu ñu daj ñi musa Fall rey ñi mu tooxal ñi mu yàq seen liggéey ñi mu tas seen liggéey ñi mu tëj ci kaso yi ngay am fitu taxaw ci ay média naan da ngay tagg kooku noonu devant eux c'est comme tu es leur ennemi number one parce que l'ami de ton ennemi est ton ami est ton ennemi l'ami de ton ennemi comprendre ñoom nee nañ nit boo xam ne doo gendarme musoo servir drapeau yi taxaw di wax du n'importe quoi musoo bokk ak Moussa Fall bureau musoo liggéey ak moom di def lu mel nii il a insulté les mémoires des morts, des manifestants tués, mais il a insulté toute la gendarmerie nationale. te nee nañ ma am na lu leen metti te dañ ma ne Mollah jël ñu ñëpp parce que li leen metti li nga xam ni vraiment dañ ne woon du ñu wax mais li ki nga xam ni moom mooy Babacar Touré Kéwéloo def metti na leen ba ci kanamu yàlla. parce que Moussa Fall ñun fàttewuñu ko Moussa Fall ñaawteef moo ko def le général ñaawteef affaire Adji Sarr avant moo am Moussa Fall nekkul général en 2012 Macky Sall da ko def mu nekk ci pale bi nekk gouverneur pale def fa ñaawteef yi doy waar ci gouverneuru pale gouvernance su palais laaj leen Moussa lan la jàppante woon bu mu nekkee gouverneur palais lan la jàppante loon ak ki nga xam ne moom mooy Jean Meissa laaj leen ko lan moo fa xewoon lan la doon def ci ñaawteef ba jàppanteeg foofu moom Moussa Fall racketteur la Jean Maxime Jean Maxime Senghor bu nekk biir pale jàppante naag musaa Fall ba ñuy bëgg bu mu nekkee gouverneur musaa Fall da doon rackete ay libaane di rackete ay libaane à coup de millions en tant que bu mu nekkee gouverneur pale chaque jour libaane yi di dugg si ay keesu liyaasu xaalis di ko indi mu itam di leen raqueté moom ki nga xam ne moom mooy Moussa Fall Jean Maxime jàppanteeg moom nangu li nga xam ni moom mooy accès entrée pale histoire boobu pale ñëpp a ko xam entrée accès palais Jean Maxime nangu nangu ko Moussa Fall ñëw mënul dugg pale en tant que gouverneur du palais Jean Maxime ne ko dee yow fii tu vas pas doo ko soppali ko di la merde merdier libanais yi di dugg ak génn nga leen di raqueté delloo leen seen xaalis raquetteur la njëkk a doon bu mu nekkee gouverneur pale raquette fa ay million ci naar yi naaru libanais yi problème boobu Macky Sall moo ko réglé Jean Maxime euh, accès bi accès palais bi accès palais bi mooy carte nga yor Jean Maxime nangu ko ci moom c'est un raquetteur un bandit bu mu noppee ci loolu mu dégg lafaire Adji Sarr mu dugal ci loxoom xam ngeen kañ la doon général premier quatorze personnes yu ñu rey yu Macky Sall rey le lendemain la ko Macky Sall def général en deux mille vingt et un après Macky Sall après avoir tué quatorze personnes yoo xam ni ci la ko gradé def ko général foofu la ko defee général il n'était pas général affaire Adji Sarr avant moo siw déedéet bu mu écraser peuple bi bu ñu njëkkee génn ñu mu njëkk rey mooy rey ñu ñaaw yooyu ci la ñëwee Macky Sall na ko c'est toi l'homme qu'il me ci la ko defee général mais boobu Jean Baptiste Tine moo nekkoon général ba créé fa enquête de la gendarmerie boobu Moussa Fall nekkul général donc reyu nit yi ñu rey premier rey yu njëkk a rey loolu moo def ki nga xam ni mooy Moussa Fall général donc moom ci rey la doonee général ci rey nit la doonee général du ci liggéey defu ko avant après avoir tué quatorze jeunes ci la nekk général te loolu rek war naa mun a signifier li wane ni Moussa Fall leer na nañ ñi que c'est un criminel Moussa Fall dafa retraité woon moment boobu dafa retraité woon waroon dem en deux mille vingt et jàpp deux mille vingt deux bu mu rayee lañ ko def général lañ tëbal Jean Baptiste Tine parce que Jean Baptiste lañ ko santoon pour mu def la sale bulo mu lànk ñu nangul ko Moussa Fall Moussa Fall rey xale yi bu mu reyee xale yi ba ca noppee lañ ko def général Macky Sall dem ba Fuuta def décret dàq ki nga xam ne mooy Jean Baptiste lan moo waral général boobu ci sale boulot yu mu def moo ko def sale boulot yooyu yaakaar naa du ñu revenir at en arrière waxoon naa yëpp ci l'affaire Adji Sarr que Jean Baptiste dafa waxoon contre expertise woo gars yi tëj leen ci ay chambre di leen pose ay questions ñoom ñoom capitaine Touré et cetera yooyu moom wax nañ ko ba pare. yaa yaakaar naa ni lafay Adji saar moom képp ku am bopp boo déggee Jean Baptiste Tine di nga dellu xam nga euh, enquête interne de la gendarmerie PV yeeg yooyu yëpp di dellu quoi yooyu wax nañ ko ba sonn dañu fi yàgg te te te gendarmerie dañoo bëgg dugg dañoo bëgg dugg ñu ngi fi taxaw di ma xaar donc il faut ñu gaawal ko tuuti parce que ñoom dañoo bëgg dugg ñoom dañoo subir ay affres yi nga xam ni kii nga xam ne moom mooy Moussa Fall moo leen ko teg. Moussa Fall mooy directeur de la justice militaire mais Moussa Fall c'est un général boo xam ni lu mu yor ci alal kenn munu ko natt lu mu yar ci ay kër ak ay terrain ba ci frère am bi nga xam ni euh, frère am ci ci prête nooy la bokk ci ci prête nooy la bokk y a eu plus de cinquante et quelques gendarmes yu exile ñëw Canada yëpp ci ay bureau Moussa Fall lañ nekkoon yëpp ci section de recherche lañ nekkoon yoo xam ne contacté nañ ma fii gis naa leen ils étaient au nombre de cinquante sept yoo xam ne jot naa leen xam yoo xam ne ñëpp dañoo ñëw fii exilé mu Moussa bokk nañ ci ñu Moussa Fall doon rëbb pour ray leen ñoom ñëpp a daw cinquante sept laa ci compté am na ñu doon ñëw ci marche yi am na ñu ma ci xam et cetera jëloon si cinquante sept gendarme ñii ci bureau lañ nekkoon di liggéey ñii ñi ngi nekkoon section de recherche Moussa Fall doon leen rëbb pour tëj leen pour rey leen ñu daw ñi ñëw nañ fii le gouvernement canadien jox leen euh, exil ñenn ñi daw dem États-Unis ci l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko ñëpp yaakaar naa ni Moussa Fall baax na dégg ko ci capitaine Touré gën a yomb fuuf war koo mun a dem naan da ngay déglu Babacar Touré kéwéloo ndax capitaine Touré da koo liggéeyal te Babacar Touré Kewelo musul doon sax waxuma la policier waaye musul doon sax ASP donc vraiment koo xam ne musoo sol tenue bu nga juddoo ba léegi musoo ASP sax musoo koo doon ngay dégg yaakaar naa ne toog dégg capitaine Touré ne la Moussa Fall baax na moo gën di déglu <laughs> un aventurier boo xam ne danaan la waa ji baax na kon kooku waa ji baax na moom te doo mbokkam liggéeyoo fa da ngaa da ngaa rek. <laughs> munoo bañ a encaissé da nga ci nii mbaa ci ne waa ji baax na moom danga nga encaissé rek wala nga naafiq parce que liggéeyoo fa doo gendarme musoo fa toog xamoo waa ji doo ko gis loolu kii ngeen toog ci ay seconde nga ne baax na vraiment naafiq weesu woo ko donc yaakaar naa ne bu ñu waree xaar ci ku ñu war a xaar mu ne ñu Moussa Fall baax na soit day doon capitaine Touré soit mu doon Jean Baptiste Tine soit mu doon gendarme yu jot a liggéey moom waaye mussa Fall baax na ñun duñ ko xaaree ci kii nga xam ne mooy Babacar Touré kéwalu sincèrement <laughs> ku ko gëm rek loolu sa yaaya baaxut voilà mais moom bu ko defee moom soit daa naafiq wala mu encaissé ñaar yooyu la mun a doon Moussa Fall avait ordonné à ses de tirer sur les manifestants et qu'il avait promis de les protéger contre la justice loolu depuis boobu bu leen wooyee réunion mu ne les manifestants sont des malfaiteurs voilà le terme qu'il a utilisé les manifestants sont des malfaiteurs tirez sur eux et n'hésitez pas et je vais vous protéger lii de la leen waxoon bu ko defee fa la rey a commencé rey nañ quatre-vingt-sept sénégalais lu musul am Senghor defu ko Abdou Diouf defu ko Abdoulaye Wade defu ko général bu njëkka rey quatre vingt mi ngi tàmbalee ci Moussa Fall ci nguuram moom ak Macky Sall ba mu reyee li leen waxoon def na ko je vais vous protéger ba kenn du leen jàpp amul benn gendarme wala force de défense et de sécurité bu nekk ci kaso bi jamonoy Ablaye Wade amoon na ki rayoon ba Sangalkam dañ ko jàppoon ñëpp fiiroon Mamadou Diop dañ leen a jàppoon et cetera et cetera mais avec l'avènement de Moussa Fall amul benn force de défense et de sécurité bu nekk ci kaso bi parce que daf leen ko xamal moo tax ñu rey rey bu musul am ci àdduna musul am Sénégal massacré quatre-vingt-sept jeunes sénégalais ci Moussa Fall la dis lañ disparaître lo un gendarme du nom de Didier Badji xam nañ ni c'était pas un n'importe qui Didier Badji c'était un gendarme des renseignements généraux Didier ji Moussa Fall nee na Didier Badji bokkoon na classe ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ca Casamance. loolu Moussa Fall moo ko def ay recherche am wax loolu Didier Badji da doon wut ay renseignements yu muy dajale di ko jox di ko rapporte di ko jox la gendarmerie nationale. Didier Badji ba suñu jonn yàlla tey kenn gisul kooram waaye Didier Badji ba suñu jonn yàlla tey gendarmerie nationale musul def communiqué comme quoi que am na benn nitam bu déserté. wala benn nitam bu mu gisul wala benn nitam bu bokk ci rang yi boo xam ni il est absent musu ko def Didier Badji seey na Moussa Fall musul ubbi enquête en tant que gendarme en tant que gendarmerie nationale seen nit disparaître musu leen ubbi enquête ma jox leen benn exemple bu gën a yomb nga jël sa mindaan mu lay liggéeyal sol sa tenue bu ñëwee sol tenue liggéeyal la mu xëy disparaître musoo koo laajte mu xëy disparaître sa kër musoo def ay enquête musoo porter plainte musoo def communiqué musoo sax dem jaale musoo dara dafa ko nga arrêté salaire am waaye yow bu la police jàppul dëkk bi sax ñoo lay jàpp dëgg la wala ay du dëgg bu ne da jël sa mindaan mu ñëw di sol ay yére sol tenue di la liggéeyal ñu ñu mu ñëw xëy disparaître yeyoo ci yàbbiwoo ci waxoo ci defoo ci enquête jaalewoo ko mais kooku ku la jàppul ku la jàppul jàppul ku reykat nit yow rek la mun a doon yow rek waa koñ bi yëpp di jooy mindaan ba waa dëkk bi yëpp di jooy mindaan ba mindaan bi di la liggéeyal ñëpp xam ko te defoo ci communiqué jaale woo ko yóbbu woo ci rajo bi laajte woo ko mais kooku yow la <laughs> du keneen kooku yow la amul keneen donc Moussa Fall moo rey te ndax moo jiite gendarmerie moo rey ki nga xam ni mooy Didier Badji ci reyin bu ñaawa ñaawa ñaaw ba suñ jonn yàlla tey amul enquête gendarmerie musul ubbi enquête waaye lu gën a garaaw mooy musu koo mettitlu lu gën a yéeme mooy musu ko naqarlu lu gën a doy waarit mooy musu ci def communiqué dafa mel ni kenn deewul ci gendarmerie kenn jógewul ci gendarmerie te gen du gendarme n'importe ki gendarme boo xam ne la enawaa la génnee am xam-xam nekk enquêteur kooku la ñu rey reyin bu ñaaw moonte lépp de toute pièce wut ay file wut ay filets rey leen ba pare jël ay filets de pêche yóbbu ko ci ginnaaw grotte yi jël ay seen yére ay caleçon ak t-shirt teg ko fa ñëw woote ni ñii Moussa kii nga xam ne mooy Fulbert Sambou di xaritu ki nga xam ni mooy Didier Badji dañ doon napp ñoom ñaar ñëpp a boobu rey nañ leen jël seen yére jël seeni dàll jël seeni portable jël benn filet de pêche teg ci ginnaaw grotte bi ci géej ga ne fii lañ doon nappee ñoom ñaar ñëpp dee ñoom ñaar ñëpp dee ñaari nappkat gendarme ak militaire yu ñëw di napp ñoom ñaar ñëpp deewandoo seen portable yi foofu seen yére yi foofu seen dàll yi foofu seen seen lépp foofu ñu deewandoo daal kenn rëccul ñu tëmbal leen tëmbal ki nga xam ne mooy Fulbert Sambou diggu géej daggate ko par morceau sànni ko ci digg géej gi ñuy gis ay loxo buñ gisee Kër Masaar ay xaj di ko ŋànk ay tànk yuñ gisee feneen ay yiñ gisee ba nga xam ni buñ ne dañ koy recherche buñ ko génnee ba léegi suñ jonn yàlla tey amul autopsie kooku moom mooy ci beneen côté mooy Fulbert Sambou Fulbert Sambou nag moom militaire la Fulbert samb ak ki nga xam ne mooy Didier Badji dañoo bokk ay dëkk Casamance di ay xarit di ay doomu ndey di ay casase defandoo armée nekk ay gaayen kii jaar armée police kii jaar gendarmerie kii jaar armée ñu xamante bu baax ñoom ñaar ñu xam ni bu ñu rayee Didier Badji kese Fulbert Sambou dina fa des Fulbert Sambou aussi militaire la mais militaire enquêteur la day enquête moom it renseignements ci biir armée bi ñu xam ne bu ñu rayee comme Moussa Fall daf ne lépp luy tourner ci tour de Ousmane Sonko da koy détruire soit lay rey wala mu disparaître loola moo tax bu mu paree ci Didier Badji Fulbert Sambou la ci teg fu ñu rayee Didier Badji la ñu rayee Fulbert Sambou moom it ñu jàpp ko génne ko dañ ko fekk mu sol ensemble blouson blouson boobu sax nag lañ yóbbu ci grotte ya teg ko fa def ci filet de pêche bi blouson yu ma soloon blouson militaire yi mi ngi newoon camp Dial Diop bu ñu ñëwee camp Dial Diop fekk Moussa pare na lépp mu taxaw moom ak gaay ñu ñëw woo ko mi ngi soloon ensemble blouson militaire yi je pense que bu bu bleu la bleu bleu am na ñaari couleur bleu bleu bleu bleu foncé bleu ciel xaw ma mais mais ensemble blouson militaire la soloon il faisait aux abords de vingt une vingt deux heures bu mu génnee ci lañ ko ne mu ñëw wuyu si mu leen may wuyu ñu ko Moussa Fall Moussa Fall lu may wuyu heure bi Moussa Fall gars yi jaay ko doole agressé ko dugal ko ci oto dóor ko ay pompe pompe à gaz dugal ko ci oto bi sey ak moom ensemble blouson yooyu ñu ko buñ ko rayee ba pare ensemble blouson yooyu lañu indi sànni ko ci gorot bi teg ca pêche jël portable am xam na bu mu génn génn naag portable am bu muy génn génn naag portable ñu génn waale portable beeg yëpp teg donc loolu lépp ba suñ joon yàlla tey armée bi musu ci def communiqué kon armée bi am na complicité ak gendarmerie armée bi bu dee gendarmerie musuñu def communiqué ci seen élément bu disparaître waa armée bi musuñu def communiqué ci seen élément bu disparaître musuñu ko jaale musuñu cee wax musuñu cee bind dañoo mel ni kenn deewul ci ñoom dañoo mel ni kenn disparaître ci ñoom tué nañ fa kenn déshonoré nañ ko mais musul am enquête musul am dara ba pare lu gën a garaaw nag ñu rey leen ba pare këppati seen salaire ne dañoo déserté këppati seen salaire seeni doom ba suñu jonn yàlla tey bu seen bàyyi gaañoo ñaari weer lañ ci teg ñetteelu weer ba suñu jonn yàlla tey doom yu fi Fulbert Sambou bàyyi doom yu ci Didier Badji bàyyi kenn amu ci gisul salaire def na at ak genn wàll ba léegi suñu jonn yàlla tey gisuñu kooru ki nga xam ni mooy Didier Badji ñooñu nag kenn rayu leen ku dul les chefs de la gendarmerie et de l'armée mooy ki nga xam ne mooy Moussa Fall ak ki nga xam ni mooy Cheikh wàdd bi nga xam ni moom moo dem bàyyi place am Macky Sall jël ko jox ko mbay Cissé mais mbay Cissé bu muy ñëw fekk na Cheikh wàdd ak ki nga xam ni mooy Moussa Fall teg seeni dil rey Didier Badji ak Fulbert Sambou te loolu Moussa Fall wax na ci Cheikh wàdd pour mu jàppale ko mu mun a éliminer calmement ki nga xam ni mooy Fulbert Sambou te coow di jib baldu tàkk ba noonu la jabaram jabaru Didier Badji souffrir souffrir ci cancer ba dee ñu ngi noonu suul ko ca Fatick yàlla na ko suñu borom yërëm te xaaree ko àjjana ci souffrance ak njabootam boo xam ni seen rey nañ seen i baay waaye yoratuñ salaire jotatuñ salaire. Euh, di wax militaire yi gendarme yi maa ngi ñëw maa ngi ñëw nañ ma may tuuti rek xam naa ñu ngi ñu ngi woote fi di leen wax ni l'histoire de Boffa Bayotte a été dirigée par l'équipe de Moussa Fall. di leen wax imaam Alioune Badara Ndao boo kenn fàtte ci ñaan Moussa Fall moo ko rey parce que il avait une équipe très bien soudée ñu naan la band à Moussa Fall ñëpp xam ngeen band à Moussa Fall dirigée par Abdou Menk la bande à Moussa Fall yoo xam ne duñ bàyyi dara ñoo rey ki nga xam ne mooy Alioune Badara imaam Alioune Badara euh, imaam Alioune Badara Menk je pense Ndaw Ndaw imaam Alioune Badara Ndaw ci reyin bu ñaaw. lii day l'histoire de Boffa Bayotte de imam Alioune Badara Ndao l'affaire Abdoul Aziz Ndao capitaine Touré ak yeneen ak yeneen ñépp xam ngeen ak Ousmane Sonko Abdou Abdoul Meng Bassirou Gueye juge Badio Camara dil yooyu yëpp Moussa Fall était toujours à côté nii la reyee ay doomu jàmbur lu doon wax militaire muré les ordres sont à exécuter sans patron légion ouest comme li mu def abdul Meng liggéey bu salte boobu moo tax Macky Sall tëbal ki nga xam ni mooy Jean Baptiste def ko muy général place bu mu occupé woon en tant que patron légion ouest mu dem jox ko ki nga xam ni mooy Abdou Meng jàpp capitaine Touré toroxal ko di ko waaja a rey ba capitaine Touré bindoon fii ne maa ngi nii di dem Touba mu topp capitaine Touré. te da doon rey capitaine Touré moment boobu la gendarmerie nationale section de recherche tas ñëpp daw ñu bëri fii lañ ñëw Canada fii ñee jaar Amérique mu ne dee musa Fall ne dee dina rey capitaine Touré grand defal naa ko mu ne déet day rey capitaine Touré ci A wala ci B teg ko soog ay nitu capitaine Touré yi newoon ci biir. di ko wax ni defal attention dawal dawal dawal dawal ci la doon annoncé maa ngi daw Touba maa ngi dem nangam ak nangam loolu lépp Moussa Fall dafa doon da koy rey bu Moussa demee ba dégg ni am na ñu nekk ci biir ñu muy liggéeyal ñuy yëgal capitaine Touré ni ñoom ñi ngi ñëw ci la Moussa Fall wëlbati ko bugg a rey ñoo it ñooñu it daw ñu ci bari ñëw nañ fii man gis naa ci kenn ku dëkk fii ci Sauvé ku ma expliquer toute l'histoire ne bokkoon na ci ñu doon wax sax capitaine di gaayanam la ñoo doon liggéeyandoo bu musa Fall yëgee ni moom sax mi ngi yëgal daf dafa jógoon pour rey ko donc Moussa Fall dalay rey sans comme rey la ak naan ndox mi la yemale. donc bu yàlla dëppuloon carte gi Moussa Fall du Moussa toog di tóojal Ousmane Sonko ndax lu fi li dëkk bi bu tàkkee Moussa Fall la. c'est un homme très sévère nee nañ un briseur de carrière un criminel sans état d'âme lii nag man du Babacar Touré kéwéloo mooy wax lii man it géwélu Moussa ay gendarme ñoo may wax may liir mu ne Mollah dit à Babacar Touré que ses collaborateurs les collaborateurs de Moussa jamais que Moussa nit ku baax la car c'est un homme très sévère un briseur de carrière un criminel sans état d'âme bu leen fàtte ni Moussa Fall moo attaqué woon cortège u Ousmane Sonko bu leen fàtte ni Moussa Fall moo déporté woon Ousmane Sonko génn ay portable am génn ay bagages am foto ko jox ko Anita Diop bu leen fàtte ni Moussa Fall moo tëj Ousmane Sonko moo yóbbul ko ay gendarme gendarme di di di vidéo Ousmane Sonko mu ñëw yónni Cheikh Sarr Cheikh Sarr avant Cheikh Sarr di ñëw bu ko gendarme bu jigéen bi wooyee ne ko Ousmane nangu na sama portable Cheikh Sarr amuloon fitu yónnee Moussa Fall la woon Moussa Fall ne allez le récupérer allez le prendre allez l'arracher ki nga xam ne mooy Cheikh sar commandé ay nitam ñu wàcc fa ñii di naaw ci miir kër Moussa Ousmane Sonko yi di wàcc para di tëb ay di di ay caméra ils étaient même prêts à le tuer lépp Moussa Fall moo ko waral moo yónni ki nga xam ne mooy Cheikh sar commandant Cheikh Sarr yónni ay nitam ñoom fa def lépp lépp Moussa Fall la donc Moussa Fall mii toog tey di tóoj pexem bu sotti woon kon lekk na Ousmane Sonko sur le plat da koy daggate morceau par morceau jox ko Macky Sall ne ko lekkal suppo ngi nii ñu ne supp la mu ne Ousmane la suppal wallahi pexem bu sotti woon moom Moussa Fall dana suppal ki muy tóojal démb supp la koy def jox ko Ousmane Macky Sall ne ko da tooy lekkal supp supp Ousmane Sonko ngi nii lu mu deful ci ñaawteef amul ci nemmeeku tur bi gazé na ko toj na dóor na ko tibb na ko dugal na ko ci oto blindé tuur na ko lu ne def na ko lu nekk lu ñaaw ñaawteef rek xeetu ñaaw ñaawteef bu ne Moussa Fall def na ko ki nga xam ne mooy euh, Ousmane Sonko le premier ministre donc Moussa Fall nit dañuy dugal léegi xaaral ma dugal gendarme mu commencé dugal sax gendarme yi nag parce que ñoom ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi accéléré ña ngi may accéléré bugg nañ dugg dinañ ñoom dañuy dinañ présenté wu completement wax leen ñoom ñooy ñan ba pare ma wan leen tam photo yi ngeen xam ba xam ba xam kii ki liggéey dañ doon général ponkal ay nit yu salaamaaleykum damay génnewaale photo yi wan leen ñu xam waa bisimilah ñu ngi lay dégg waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam sant yàlla alhamdulilah ma dañoo nekk fii bëggoon nga présenté wu déjà. Ah. kii moo nekk nii mooy wax ni waaw moom damay prés damay nga présenté wu après nga expliqué dañ bëgg a waxtaan ci l' affaire Moussa waaw waaw bon am na lu ma jot a suivre léegi si li nga doon wax. Hmm. waaw non dama bëggoon nga présenté wu déjà maa ngi sa photo nii bëggoon nga présenté wu pour gars yi xam ni yow yaay wax. ah ok ok ok ok ça ça c'est bien man euh, Amar Sarr laa man la gars wax un peu partout là naan adjudant Sarr bon j'étais adjudant chef. ba bi may quitté gendarmerie euh, le 9 astafurlah le 6 novembre. 2023. Mhm. Euh, ma totalisé vingt sept ans de service. waaw pop pop macha allah. vingt sept ans j'ai commencé au bataillon de commando ba ma def foofu huit ans dix neuf ans yi maa ngi def biir gendarmerie. d'accord mais lan ban problème nga am foofu euh. lan ban problème nga am ak kooku amal bu nga expliqué. bon defoon naa vidéo ah man boo gisee ma nangu parce que c'est la première fois sax euh, ma ma ma def euh, genre intervention yi mais heureusement parce que bàyyiwuma rek ba fi yi jeex ba Moussa Fall ñàkk mu mel ni euh, dama si topp di di yàq hmm. j'avais fait une vidéo bi ma posté foog naa ñu bëri suivre nañ ko sama page Facebook def ay post dénoncer li ma jotee ak Moussa a à titre individuel. ok. et sama intervention aussi bu ngeen ko permettre dama koy yemale aussi ci man rek euh, parce que dina doy illustration dina doy exemple. d'accord. Euh, pour ne pas trop extrapoler parce que ak lu mu mënti aussi. Hmm. Euh, je suis encore dans les réserves. fi ma tolloon aussi am na yoo xamante ni ah yoon mayuma ko. d'accord allez-y allez-y. waaw je suis sous serment. te am na yoon mayuma ko donc il faut ngeen comprendre astuce boobu aussi donc dama koy yemale rek. ci li ma ak moom à titre individuel nga xam ne doy na sëkk sek sëkk sëkk pour nit mën a xoole foofu gis ni Moussa Fall bon dinañ ko nangul ni nit la. dinañ ko nangul ni kilifa la woon ba léegi dinañ ko nangul il a parcours sa carrière dinañ ko nangul lépp loo xam ne am na ko ci tur ci wërsëg ci grade et tout ce hmm. pour son bien et de sa famille ak ñi koy défendre ñi ànd ak moom hmm. loolu dafay am ci dundu doomu aadama foog naa firaaw na sax tey boo leen histoire am dina am foo xamante ne def na fa lu baax hmm. mais nit loo xam-xam xam-xam ci lu baax am nga droit nga seedeel ko hmm. loolu dañ koy demandé ku nekk ba ci Moussa am na droit bi en tant que être hmm. mais boo koy seedeel lu baax li ko xamal bu amee ñeneen aussi ñu ko xamal safaan di ko xarab yow amoo benn droit nga taxaw ne moom xamul bon musul def lu bon du tooñ ku jub parce que boo defee loolu rek mhm. da saaga la mémoire de ces l'a opprimé dëgg la te loolu xaw na dal kenn démb man mii sax jokkoo naa ak moom ah, pour bañ a tudd xam ngeen ki wax parce que euh, dañ ma rapporté qu'il passe en plateau di défendre Moussa Fall bi ma dégloo man yor naa numéro am eh, ci côté boobu laa ko nit ki défendre li nga seq ak moom mais boo nee lépp luñ ko waxal sos la rek yaa ngi saaga ñu mu joteel yaa ngi saaga ñu mu tooñ. vraiment. service laa def yow mi ak ñeneen ñi suivre euh, live bi seetaan ngeen ma avril 2023 jot sama quatrième décoration croix de la valeur militaire asafurla médaille militaire. devant le front de la troupe ñoo koy décorer devant le président de la république si 4 avril défilé loolu du n'importe qui moo koy am kon mën naa wax tey bu ma demee ba gert de gendarmerie mi ngi tukkee si li ma jotee ak Moussa parce que mois après décoration bi au mois de juin la ma tëj kaso. tëj. jiiñ ma lii dignement du Dambaye jël ay renseignements sur l'action de la gendarmerie nationale di ko yóbbul Ousmane Sonko. cey yàlla toujours Ousmane Sonko. c'était l'objet mhm. c'était l'objet de de l'enquête à la section de recherche brigade waa section de recherche de la gendarmerie nationale bu nekk Colobane. donc yow yow pour pour pour pour demander daguma la euh, gendarme renseignements généraux nga wala comme comme Didier Badji wala. non non non non. ah Didier Badji bon.

parce que Moussa Fall tey ku ma joxoon paaka ma rendi ko. je le dis Sénégal ñëpp ñu ngi may hmm? moom damay wax ak moom ba fan yëpp bloqué na ma sax finalement mais amul saaga moom sa loolu sama diggante ak moom la parce que comme ni ma ko waxee si vidéo bi rek maa ngi jëflanteeg moom li may jëflanteeg moom ci suuf parce que je me suis assumé depuis le début. waaw ah, da nga saagante daal ba da nga saagante ba mu la quoi. non loolu moom man moom la xam na ok waaw léegi léegi ñu dem ci histoire bi ñu dem ci histoire bi vite fait. non histoire dañ ko jàllale ci Ousmane Sonko en réalité Ousmane Sonko mosuma ko xam tey bu ma neexoon ma ne xam naa ko def lu malin mais du ma du ma sosal Moussa Fall malgré que li ma la wax boo ma joxoon paaka tey ma tël ko rendi ko devant tout le monde. Hmm. ak weeru koor gi ma woor ndogoo ko ma. Hmm. yaa ngi dégg hmm. mais. moom daf ko jaarale ci Ousmane Sonko parce que je suis très ami avec un des frères de Ousmane Sonko depuis foog naa yéen ñi kenn xamul Ousmane hmm. man aussi mosuma ko xam yàlla def na mosuma ko teg bët lu dul télé mosuma ko dégg lu dul rajo. Hmm. parce que ki fréquenté frère am doom baayam la ok donc Moussa Fall ce qu'il mooy man fi ma nekkoon di yaa ngi wax renseignement généraux non man je suis un spécialiste dans la gendarmerie nekk un gestionnaire comptable dañu mooy bon bu dee civil dañ leen euh, en tout cas si xaalis laa doon liggéey. ok xaalisu gendarmerie ma doon gérer vraiment des sommes euh, bon. léegi nag dafa am lu fa xew parce que y a des procédures en cours. am na loo xamante ni dama ko mën a divulguer. Hmm. waaw demal demal boo xew. Hmm. maintenant pour mu jëlee ma fi ma nekkoon bëgg a profité affaire yi. Hmm. njuumteem wala ëppalam wala jaay dooleem en tout cas il a commis l'erreur daal di xool ne ah comme kii jege na rakku Ousmane Sonko xëy buñ ko toppee côté politique bu ñu demee ba naxanteeg moom ba jot ay téléphone am yàqul danañ fa gis benn message wala benn appel hmm. wala benn connexion bu dem ci Ousmane Sonko bu boobaa kon heure bi yéen am na gendarme bu ñu fi jàppoon wala sax xëy na fàtte nañ ko. waaw parce que en réalité fi ma nekkoon bu ma defoon loolu yoon dafa war a dal sama kaw kenn waruma baal dara parce que nag dafay nekk loo xam ne faute bu diis la. Hmm. ñu benn yoon nga am accès information gendarmerie di ko jox nit. donc dox ndoll boobu la doon ut yàlla def nag biñ ma biñ ma woowee de recherche appel les gens m'ont m'ont pris ma décl kii comment def sama audition c'était le mercredi juin ma ñibbi bon ci yoon bi ñu woowaat ma ne ndax mën nga joxe say téléphone parce que aussi la procédure mayu amul obligation pour ma joxe samay téléphone mais j'ai consenti à remettre mes téléphones parce que xam naa liñ may laaj takkewu ma ko lee ma ma dessiné code yi jox leen bind euh, comment dirais yi jox leen dem suma ngoon sama chef de service yónnee sama kër ma ñëw mu ne ma ah Moussa Fall joxe na ndigal tu aux arrêts da ngay dem kaso leen mais yéen xanaa kuy dem kaso di ko servir demande d'explication ngeen ko service demande de déclaration ne ko yow lii nga def wala lii dañ lay toppee mu ne ma non euh, servir ma dara il a les ordres donc yow voilà bàyyil ba guddi ba ñëpp tëdd après bul wax kenn dara nga dem sa yoon. waaw naa volume bi boo mënee yokk tuuti gars yi ñuy wax volume am na ñuy wax volume xam naa seen portable day am problème nag dama ragal ci ñoom la mais boo mënee yokk tuuti rek ah voix bi. je ne pense pas mu nekk si man nag vraiment. ok waaw. Ah. donc imaginel ki ngay tëj yow nooy tëjee nit kaso ci lu toll ni jamono te loolu c'était cinq la amoon je crois les neuf morts je me rappelle bien. Hmm. le sept nga jàpp nit ki nga ne da nga ci lu toll noonu mais kooku yow bu fekkee li nga dëgg la mais kooku doo sax bàyyi. Hmm. boo koy tëj tey am mais da koy dugal si oto yóbbu ko. Hmm. mais nga ne ko noonu dañ lay suturaal parce que chef nga ok léegi bàyyil ba guddi nga dawal sa oto Medina ba LG mbaaw nga yóbbu sa bopp kaso boo demee fa fekk sa këyit nga tëdd kaso xaar léegi man mi nekk promotionnaire Didier Badji Didier ko jiiñ dara kenn mhm. na ci am am na loo xam ne nag ñun en tant que gendarme mënuñu ko wax sur une plateforme publique ok. Mhm. mais man mi ñu jot a woo dañ la jiiñ dañ laa soupçonné da ngay joxe information ndax man dof naa dof góoram rek tax may taal sama oto di xaabar naan Cheikh Fla damay dem kaso di yóbbu sama bopp. déedéet. boo ko defee da ngay xaru rek te te dégg nga sa morom ja seey na noonu. Mhm. non foofu laa yem rek léegi bu xëyee ñu fekk oto fële buntu gàtt yi wala fongale bi fële wala Touba Bouta ñu ne ah waa ji kat moo recherche. say ay téléphone am ak nii fekk na ci nangam nangam donc xam naa réer na gars jàpp ne man dugg naa si àll bi mais ba ilaa yow mi din si liste hmm. loolu nag yàlla da koy maye après ma bañ ne bon man kenn du tëj di ma suturaal parce que bu ñu xam naa ne liñ ma jiñ def ma ko dugal leen ma si oto bu ñu bind gendarmerie yóbbul ma seen bopp lu ma dal lu fa fekk nga xam ne sama seen loxo laa nekk. Hmm. nii laa def may kaso ma mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi sama yaay génn àdduna. Mhm. waa ñu ngi dégg. bon ok. na ko yàlla xaaree àjjana yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana. Mhm. man passage boobu man. déstabiliser sama vie parce que mardi laa jógee village sama yaay mu génn hôpital ma dem yendu ak moom munul woon wax bu may yegg si gaare sama sœur woo ma sax dem naa bay defaat marché arrière foofu ni maire dafa génn àdduna ma ne bàyyi ma ma woote rek ba xam lan la parce que appel yi bëri na lool parce que bi may dawal jël moon sama téléphone. Hmm, boobu mu ne ma yow da dem rek sa yeewu di la laaj. ma sama yaay foo wax mu ne ma waaw mu ma yow rek la doon laaj ma ne ah amul problème suba mercredi la bu ma xëyee ba ma naan sama sœur bi sóoraale ma añ comme man bu ma wàccee rek après je continue là-bas ba tey gisuma boobu lañ la yóbbu daal mercredi boobu lañ la jàpp yow. mercredi bi nga war a dem seeti sa yaay. mais mardi laa fa jugee mercredi lañ ma jàpp beneen mardi bi ci topp mu gaal. ma masa metti na waay. dem ci loolu du may dem yegg dëkk ba gars yi lijjanti dugg bàyyi ma ne leen comme dañ ma tëj mo woote dëkk ma dem bu leen ma xaar bàyyi say loxo. Hmm, hmm. am na loo xamante ni man bu ma tëbee tëb dem retour bi wala yoon bi lu ma dal rek man ñu ay soldat lañ am na détail ayom duñ ko mën a wax comprendre après sama faute lay nekk. lu na ba pare bu village fekk naa yaay suul nañ ko bàmmeel laa ma ñaan li may ñaan ma comme demee na mm. Mm. man comme man maay ci amul problème métti na métti na mais dañ def sarax bi ne leen le safura jour. le même jour parce que si loxo laa nekk problème bi du lu ndaw xaw ma muy jur boobu yow Moussa Fall dugal na fexe na ba dugal la ci kaso bi. Hmm. maa ngi doo comprendre lu tax nga naan buñ la tegoon Moussa Fall nga rey ko maa ngi doog comprendre lu tax waaw vas-y. loolu dañu si dañu si après bon ma ñibbi noonu ñu saraxee le ma toog trois jours ma ñibbi ok continuer sama kaso ba fii may wax ak ba fii may wax ak yow. Hmm. mosuma servir kayit mosuma servir demande d'explication mosuma servir punition. parce que pour mu mën ko def il faut que waa section de recherche jox ko ay ay ne ko effectivement saar bi xam na Ousmane Sonko wala mës na ko yónnee dara wala seq nag dara kenn Pastef comme nag waa section de recherche déjà moment boobu sax amaguñu résultat parce que le même jour la ma tëj. bi ma ñibbisee dix jours après waa section de recherche woo ma delloo ma samay téléphone après comme gendarmerie laa nekk vingt sept ans xam naa. oui écho yi commencé ñëw ne ma non vraiment gars yi la tooñ mais si téléphone y a rien man leen ne man magum jëm kenn du ma résultat bu jógee sama téléphone. Hmm. man ba xaw ma ni lan la ko ah moment boobu ma sax affaire xaalis la dama ne non nii sérieusement je ne sais pas lii peut-être erreur la si laa demandé pour dem gis ko. Hmm. mu bañ. mu ne du la gis mu demandé waat waaw léegi man bi ma génnee kaso ñu ma sama mutation ñu ne ah Moussa Fall de affecté na la Kédougou mais li si gën a neex bi may dem Kédougou laa xool mutation bi xam nga lan laa gis. Hmm. man Moussa Fall le sept la ma tëj mu xëy le huit mu signé sama mutation. Hmm. mais ko tëj kaso. koo xam ci loo xam ne dans les normes bu fekkoon li nga ko jiiñ moom moo ko def da ngay dem conseil d' enquête yéen a comme par exemple capitaine Touré nu ma amoon problème ñu ne conseil d' enquête après gars yi dàq nañ ko ñu jugé ko truc truc mais noonu la waroon demee. kon mm. loo koy affecté ki nga war a dàq kay mais loo koy affecté. Mm. donc moom déjà il savait que xam na lu muy def man dafa bëggoon rek ma jógee ci post bi mu xaw ma napp xaw ma taxal ma nekkee tapet may wër di jooy wala di lamantewu après affaire bi jàll. boobu la xamul ne ñun ay xam nga ay séeréer lañu ay villageois lañu. dañu def leen def bois sacré am suuf ñu bokk. waaw nga mujjee nan ak moom après noo mujjee ak moom. li ma moom mooy ma waree dem Kédougou ma ne non man nag damay sol sama daal dem nag jàkkaarloo ak moom te yàlla surtout def nañ sutura keroog bu ma dugoon bureau ko heure bi xam naa ñi nga wax leneen. waaw moom mooy la kay c' est normal ah boo leen ko royal mu rek ah da ngeen da ngeen seetaan de tamit aussi militaire da nga dee mbala nga dund quoi. non. allez-y. Hmm. non mais tamit lu leen def tamit lu leen def tamit ci euh, day militaire jàpp benn waay jàppale di la massacrer di massacrer di avancer di massacrer ngeen toog tamit aussi tamit benn instant. ah mais ça waay. Mm, d'accord mais yow dafa am loo xamante ni euh, dafa am noo koy exécuté balaa muy nekk ngaa ci yow bu alors ba keroog muy nekk ngaa ci yow nga doog ci toppaat di def réclamation loolu la ñuy wax ne les derniers ordres sont à exécuter sans hésitation ni murmure l'autorité qui les donne en responsable et que la réclamation n'est permise aux subordonnés qu'après avoir obéi ça veut dire que yow la borom ndool fooy bañee da ngay nangu ba pare ci li la naqari nag nga delluwaat ci ginnaaw doog a def réclamation mais fekk na yow tooñ nañ la ba pare loolu moo tax mu compliqué quoi donc man bi may dem je suis reparti à son bureau dox sol sama tenue dem colonel bi ne ma yow état bi nga nekk du ma la bàyyi ngay gis général bi parce que musiba lay doon ma ba ah, comme bañ man du ma nekk nekkuma nit kuy xeex wala di indi scandale ok ma dem Kédougou rejoindre. problème bi ndeysaan mu ne ma ku koo xam ne am naa amoo ko naa de bonne relation ah mu ne ma bon may ma un mois ba affaire yi sedd dinaa xool li koy gérer ba ma demee Kédougou yàlla def ma def un mois euh, douze jours sama papa génn àdduna. est-ce que. foofu ñëw Dakar ci sarax bi nag sama xol après yàqu na foofu nag ak li ci xew yëpp ma sol sama sabadoor laa demee bureau yàlla defaat fi may gaare sama oto pour wàcc jubal bureau rek fi ma doon contourné ma yemaat ci le même colonel son chef de cabinet mu ne ma mukk dooma romb dem après sama xol fees keroog tuur naa xéwal sax ma ne ko garaawul man jotewuma ak yow benn nit laa joteel muy Moussa te lu mu yàgg-yàgg maag yow maag moom dinañ daje amul problème parce que nekk fii di coow sax tant yaa ngi sous les loo def day nekk faute te bugguma ko may fu muy amee boo xamante ne dina ma ko toppee si diggante bi il a reçu le rapport d' le astafurla le procès verbal d' bu section de recherche mën naa wax turam parce que amatul danger ci moom le commandant Badara Fall moo nekkoon section recherche actuellement mi ngi Thiès di commandé section de recherche bu Thiès il lui a envoyé le procès verbal d' ne ko Sarr mi li nga wax ci moom wala li nga ne dañ la ko wax ci moom amul xamul Sonko sëkkul ak moom dara waxul ñoo ko laaj ne ndax li xew ci réew mi yaa ngi siy waxtaan mu ne waaw dama ciy waxtaan ak suma njaboot comme da nga siy waxtaan lii diggante Ousmane Sonko Adji Sarr Mame Mbaye Niang jaxase dëkk lan moo ci xalaat ma ne leen benn yoon ànduma si benn yoon parce que nag sama parcours am na fu ma dem sur des théâtres d'opération au niveau international Nations Unies fu ne ma dem mais la ma fa gis yéenewuma ko Sénégal te lii ci yoon boobu la jëm. comme yéen a ma laaj nag man ma wax soxlawul ma xam Ousmane Sonko wala Amar Ndiaye wala Bate Ndiaye képp kuñ fi jaay doole te du yoon man en tant que gendarme moom mënti jàkkaarloo xam naa lu dul yoon ma ne leen du yoon te képp ku Sénégalais xam ne ni du yoon te fu mu sama yoon nag nekkul si politique la preuve ba fii may wax ak yéen masuma voté bare voté wu ma te nekk naa fi say ministère. fekk fi ay secrétaire particulier ministre bugguma tudd seen tur ak yu bëri fa xew man man ay journaliste dañ doon rang sama kër ñu ngi may terminal journaliste ma nekk ci ay ministère ay scandale xew fa daw sama ginnaaw pour am information dara musul seen man yor naa mail gouvernemental mail laaw de maanaam conseil des ministres dama koy jot ba pare sama téléphone wala bu dee sama ay bureau sama ordinateur ma imprimé dugg bureau ministre jox

mais kon man moomu am parcours boobu yow waroo ma jiiñ ou alors même boo ma jiiñee en tant que citoyen ok bu ma juumee war nañ ma topp mais boo ma toppee gisoo bàyyi ma. Hmm. comme romb naa fu nekk mu jaay ma doole nag man si laa gedd parce que dama ne comme man Moussa Fall am na doole yëpp yéen xam ngeen ni mu doon doxee du ma ko na tous les pouvoirs nekk si légal. mënuma ci moom dara man maa ne au à mémoire de mes parents ak ni ma ñàkkee taxawu samay waajur Moussa Fall xañ ko man kooku dootuma ko saluer ba keroog may dee man maa waat loolu lii moo tax ma bàyyi gendarme ma ne Moussa Fall bu fekkee man nit laa sama yaay moo ma jur sama baay moo ma jur man dootuma doojal Moussa ba keroog may dee parce que bu ma bàyyiwul gendarmerie dara dina xew ba war ko toojal te loolu dootuma ko def man maa wakkirlu loolu si yàlla lii moo tax mu bàyyi Sanu naa kenn ku ñëw Daare et c' est le plus important parce que Moussa en dehors de service pendant dix neuf si état major may xam di dégganteeg moom di gisanteeg moom bu gaa man ak moom ñoo dëkk buntu këram ak sama buntu kër matul quinze mètres. ñu bëri xamul pendant plus de trois ans Moussa Fall man ak moom ñoo nekk voisin direct du ma dugg si parce que maa xalaat njabootam comme ni ma amee njaboot man ak moom ñoo jot a jotewu ma ak gendarmerie ci posture xam ne ay généraux sax ñi ngi liggéey moom xamuñu ko awuma si moom respect li tax démb nag. Babacar Touré je peux parce que échangé nañ phase bi mu waxee ba tudd yaay Moussa ne woy dañu maire bi xaw ma après ko ne. waaw da doon bëgg a laal sensibilité sénégalais yi da ko rek laal leen sensibilité émotion. man loolu tax may wax nag. <laughs> bu fekkee Moussa Fall benn yaayam moo dee man sama papa gaañu na sama yaay gaañu na en l' de deux mois douze jours yoo xamante ne Moussa Fall na ma loo xam ne ba keroog ñuy jàkkaarloog yàlla suñu borom ba yóbboo ñu ne te wallaahi azim man dama ko ko waatal moom may mujjee bloqué nee naa ko man ak yow bu ndajee wallaahi di nga de ta vie nga mës a toog gendarme loolu maa ko wan. non juum dëgg dëgg dëgg dafa juum mil gendarme yu bëri woo nañ ma mer nañ torop sax vraiment. surtout ay surtout dox ay raykatu nit ngay wax ay waxu ay sama yaayam ay nangam fii ñaata doomu nit la fi rey ñaata doomu nit lañ fi tiire. yaa 87 morts ngay wax ay waxu yaayam yaayam reyuñu ko ñii dañ leen rey ay bal ci bopp c'est ma baal nga kon ne loolu dafa naqari quoi vraiment. non il a mal défendu. waaw il a très mal défendu faut pas être l'avocat man militairement militairement Moussa Fall ëpp comme li ma wax daaw rek maa jot samay honneur honneur xam ne ay liggéey nañu ba retraité te mosuñu ko am man am naa quatre fois. taxuma wax sama bopp. waaw waaw Alioune si yaa ngi doon wax naan fu muy wax ay waxu yaayam ak yooyu yooyu yaa sa yaay. Hmm. waaw vingt sept ans kenn mësuma puni mësuma am avertissement mësuma am vingt sept ans te ku doon liggéey ci xaalis di yor ay millions millions Sénégal. Hmm. parce que gendarmerie moomu ko. kon mu nit dina la wax kan mooy Amar Sarr parce que bëgguma wax sama bopp mais tax may wax ni fees sama xol mooy man moo ma tëj jiiñ ma lu amul ba sama yaay ko wax fii. yaa ngi dégg. Mm. sama diggante ak sama papa pour ko wax fii mais ma nekk taaw war leen taxaw mu xañ ma ko ngir jaay doole nit jóge fële di yërëmtalu naan mooy yaayam dañ ko tuumaal ma man loolu moom ma génnee ci sama sama réserve man. yaa ngi dégg. waay ku may dégg di defar Moussa Fall defaan ko ci li ngeen seet mais bu miimal lu mu def ñeneen parce que man waxul wax du ma turu kenn et j'en énormément pour qui il a leur carrière. waaw moo tax waaye loolu lañ ma wax xamal lañ ma wax euh, moom laa doon liir léegi militaire gendarmerie ñoo ne ma c'est un homme très sévère briseur de carrière un criminel sans état d'âme ñoo ma ne ma bind loolu ay ay lu ma lay wax nag ay colonel xam naa xam nga leen bu ma la yónnee seen photo gis ñu ne ma c'est un c'est un homme très sévère ah. briseur de carrière un criminel sans état d'âme waaw ma bàyyi leen continuer dama lay dama lay dama lay jàppale rek ci li ngay wax briseur de carrière bi. problème mooy. man hmm. li may bañ mooy. Hmm. képp kuy défendre Moussa te man ma wax la ma préciser man mi dëkk moom pendant plus de trois ans ah tey da laa commencé wax peut-être publiquement lu sama page. Hmm. mais am na ci ñoo xam ne bu ñu arrêté wu man man sañ naa waxuma la wax de photo laay jël publier parce que man maa tiimoon buntu këram ñu jàkkaarloo ma doon quinze mètres may gis ñuy dugg di génn bu ñu paree ne ci télé yi di wax leen neex ay mag yu ñàkk fayda kon nag Babacar Touré Kewel il faut mu mhm, allez-y. Moussa Fall baax na si ñoom nañ ko wax seet na baax si ñoom je suis d'accord mais il a été très mauvais avec moi et avec beaucoup d'autres gens. tey gendarme parce que boo nee Moussa Fall képp ku wax dara rek da ko contrôler da ngaa parce que ils ont bien dit que ku moom mooy wax ci Moussa Fall waaw ah, c'est pas des respect non c'est une erreur c'est une erreur c'est une catastrophique loolu moom du du waxu du waxu sax un journaliste un journaliste ne doit pas parler comme ça c'est pas respectueux ça. loolu côté wax non ci kii laa la dama ne ci ci Babacar Touré Kewelo c'est pas le rôle d'un journaliste le rôle d'un journaliste c'est pas de manipuler c'est pas d'influencer l'opinion son rôle c'est de d'informer et d'enquêter loolu mooy rôle am moom c'est pas à lui muy manipuler wala muy influencer l'opinion wala di jouer jouer ci seen sensibilité ça c'est pas du respect bu fekkoon journalisme am na Sénégal dañ koy dañ koy delloo dañ koy delloo wala moom ñu ne sa déontologie mayu la lii parce que moom amul droit doon géwélu Moussa Fall c'est incroyable. non moom moom li ko wax ak moom ba pare. Euh, je m'en tiens ok j'ai bien mais il faut ñu leeral parce que bu ko waxee ci télé bi après waxuñu ko feneen il faut mu leer waaw bisimilah. mais dafa mais dafa am yeneen yu ne ci plateau yi. je les ai suivis ay 2S ay yeneen plateau parce que man aussi euh, am naa worma parce que ñooñu jur nañ fi doom nekk ci armée bi ma xam leen am na ñoo xam ne sax jaar nañ sumay loxo ma am kersa ci seeni doom mais bul défendre Moussa Fall ba ne képp ku mu joteel kookoo dëng déedéet Moussa Fall jubul jubul nit nag mënta jubadi cent pour cent amul. il faut mu am fu mu baax ci ñoo xam ne amal na leen njëriñ ñooñu nañ jot jàpp njëriñ bu mu leen amal ñoom ci seen intérêt bopp mais Moussa Abba il est national parce qu'il à la tête de la gendarmerie nationale foofu lañ koy natt nattuñu ko sax dans ses individualités bu tabaxalee nit këram jëlee ko ci poosam y a le fonds de solidarité de la gendarmerie loo xam ne c'est un fonds boo xam koy dagg gendarme di ko dajale et même bu ci tibee defar kër na ko noo defee noonu parce que le fonds répond à des critères yoo xamante ne dafay commission yi ñooy xool ne diw mi kat am na soxla est-ce que réellement a jàppale wala bu ñu koy jàppalee à temps mais Moussa Fall des fois dañ sox rek mooy chef mu ne aca envoyé leen ma de millions wala certaines choses ñu defaral ko mais moment bi ngay defaral ko c'est bien mais yaa yàqal keneen yàq bi lañ la tere chef dafay defar mais du yàq kenn du fi toog di wax lu mu defar parce que defarewu ko ci poosam man defar boobu gisuma ko il n'a pas pris salaire pour donner à quelqu'un est-ce que a nga fi may waxee. bu baax kon baaxu Moussa Fall ñi ko xamul nekkul ci gendarmerie nañ ko wax yembale ko nag ci seen diggante ak moom mais il man de man j'ai comme j'ai dit man saaga laa ko jëlee parce que ku mel ni man ñëw toog jàpp sama njàmbur di ko lijjanti ak moom boolewu ma ci kenn yu mel nii moo mën a tax ma wax publiquement parce qu'il m'a insulté te ni laa ko waxee saaga la nga mën a wax ni Moussa ku mu jàppanteel yow yaa dëng c'est pas vrai il faut vraiment weesu nañu di génnee ay wax dëgg yàlla ku ma fekk may génnee mbóot sax danga may xet il n'est pas plus responsable que moi xam na ko doole bu mu am je l'ai défié devant tout le monde il y a le rapport le rapport d'enquête le le le procès verbal d'enquête ils l'ont sorti pour Touré wala keneen kuñ fi song rek génneel nañu ay këyit ba keroog ngay dee kenn sañul génnee le procès verbal d'enquête bu fekk ou alors c'est parce que da bëgg Moussa Fall dem fanaan parce qu'il a menti, mais ma ma ma posé la ay question ah. boo paree ma posé la ay question hmm. ok lu ma leen njëkk laaj mooy euh, nee nga xam nga DJ Badji DJ Badji bu muy disparaître bu mu disparaître ba pare lan moo tax yow même nga yaa ngi ci gendarmerie te defu leen benn benn communiqué. jëmale ko ci moom est-ce que loolu gendarmerie euh, ay loi am ak ay am nangu na loolu. Ah, non non foofu je vais te dire dama lay dimbali foofu aussi. parce que nit tamit. allez-y il hmm. sama promotionnaire la. d'accord. yaa ngi dégg. Hmm. Didier Badji il a je crois on l'a annoncé sa disparition au euh, vendredi. oui. si je ne vendredi ou samedi. Hmm. vendredi. vendredi à moins à moins de deux semaines en tout na sama kër man. Hmm. de la gendarmerie waxuma au nom de qui que ce soit. vas hmm. am na lu mu doon dox biir gendarmerie foofu comme suma grand la suma promotionnaire la ma ko doon toj pour pour pour benn soxla bu mu waroon doxal suma jabar après mu ne xaaral ma jaar yëg jaare sama booy ba ma koy tooñ ne ko man doo suma grand parce que danga ma bàyyi ñu tooñante mu yéeg toog tuuti après mu dem. keroog laa gëj a je crois moins de deux semaines j'ai appris sa disparition. Oh, oh. pour te dire que xam ko. mais nag je vais jamais m'aventurer ba wax lu ma xamul pour dire très vrai et honnêtement rumeur yi may dégg ci ci autour de sa disparition peut-être dégg nga ko peut-être keneen dégg nga ko mais man lu officiel mënu ma ko wax yaa ngi dégg. Hmm. très honnêtement et gendarmerie aussi nekkul une cellule civile boo xam ne dara day xew rek après ñu def ay communiqué ça ne se passe pas comme ça ça c' est commandement. ils l'ont jamais fait. taxawaay bi si commandement amoon nag. Mhm. non moom may ma rek taxawaay base bi commandement bi amoon au nom du général Moussa Fall aussi ñu bëri naqarlu nañ ko ñun ñii ab promotionnaire am. liggéey ñoo bokk groupe whatsapp. ba léegi la fa xew ma ko wax fii. mais en tout cas ñun li ñu mën à notre ko mais ay militaire xam ne du génn nag du génn. est-ce waaw mais du génn mais seen doomu nday bu boo xam ne disparaître nii ngeen bokkoon benn group doon gisante. mais ah mais tamit waaw non loolu t'inquiète moom justice moom dina ci def yoon moom justice dina def yoon bi loolu du ma la sonal ci wote boobu sax. waaw loolu justice dina ci def yoon ne vous inquiétez pas même boo leen waxul dinañ def enquête bi incha allah. ñu baale ko continuer danañ ko réglé. lii a lay wax ma ah. la wax tey. Hmm. xam man mën a taxaw di wax. Hmm. yow yow mën naa ko wax euh, xam nga yow on am na benn page voilà dëgg dëgg dafa nëbb xam ngeen waa jooju. xam naa waa ji ñooñu ñooñu waa waa la kii la kii taxawaalukat boobu noonu mooy. Euh, kii Ba Jaxate déglu rek am na ñu nekk baa jaxate baa jaxate la waa APR la dëgg dafa nëbbu du dara fen rek la ñuy def ñooñu bisimilah ñu def fen ak sos rek. waaw juste. ama hmm. ah, moom nee nañu yow. yaa ma doon wooyee xaw ma loolu xam nga yow. laa doon père mu ne ñu ne yow sama borom sama waa kër sama jabar moo dëkk sa frère moo nekk say waa kër gis nga bii li nga ma tëjee. sama jabar moom samay promotionnaire ñoo ko woo ne ko jaru ko boobu la woon dalay woo yow ma propre épouse mu ne ma yow damay bañ nga disparaître parce que fii ñu la tëj il faut bàyyi ma woo Mollah mu jébaane affaire bi def bruit ma ne ko non je t'en prie man nekkuma nit ku yàkkamti xam naa ne daal liñ may defu ma ko yàgg yàgg yàgg dëgg dina feeñ. booboog léegi on est à neuf mois xaw may doog a wax ak yow tey n'est-ce pas. yaay euh, vraiment ñi ngi doon wax ne. dëgg dafa nëbb. il a écrit y a des écrit am na ci xam ne gis naa leen ñu dugg kër Moussa Fall génn te wallaahi maa man may wax yow sama billet jënd naa ko Sénégal laa jëm du ma wax nag kañ. mais ñooñu ñëpp dinañ xam ne man gendarme laa woon et je prends la peine xam naa Sénégal tuuti dinaa leen topp topp topp ba teg leen jar na ko moom jar na ko ah c'est de mën naa moom mën naa jàpp dëgg-dëgg nëpp moom euh, baa jaxate la xam nga yàqu na a écrit il def. xaw ma <laughs> grand grand boo demee boo demee boo demee boo demee bul bul bul songagu même parce que man ñooñu dama leen di réglé loolu man maa ko wax Sénégal yëpp man maa décidé. ne jaral na ma dee je vais régler cette merde là qui a existé là-bas mooy ay dëgg dafa nëbboo ay ñoom baa jaxate ku ma fa fekk dinaa la massacrer. billahi wallahi et je ferai une guerre une guerre laa la wax parallèle boo xam dinaa fa taxaw di je vais je vais m'armer jusqu'aux dents ba ñu ma ci dara au no du peuple sénégalais dinaa ko jaayanteeg ñoom. billahi wallahi takk takkal téere dinaa ko jaayanteeg ñoom au no du peuple sénégalais teg naa sama bakkan ci man ak ñoom te Dakar dina tàng jër man ak ñoom dina dinañ ko ñàkkante. incha allah. dama lay dolli lenn rek. voilà Moussa Fall sa ak lépp luñ ko mën di waxal ma waatal la ak yéen ñi may déglu Sénégal ma waat ci yàlla ak weeru koor hmm. ma ko wax si diggante bi te moom du wax kenn parce am na colonel bu mu yónni si colonel bi sax dafa ko mujj saaga man aussi maay nit koo xam ne yaa ne Moussa Fall bi mu juddoo ma ko wax man. en tant que gendarme de mu nekk sama chef mosu koo dégg man xam naa ko juum na nag te wax naa ko man may naa lay occasion pour nga revenir man sama der dong laa bëggoon nga setal maanaam li nga juumee wala dañ laa juumloo nga taxawaat delloowaat ma man sama intégrité li des nag sama yaay condition yi mu gaañoo sama papa dem loolu xam naa ni nit du ma ne mukk rey sama waajur mais nag taxawaay bi nga ma xañ loolu moom na lay leer ne da ci dee ma dee ci yàlla donc moo ñu at mu mën a atte te même boo tëddoon ma rendi la taxul ma baal na waaw. li woo yëpp naan ma ay gëmal yàlla dogal la nangam maa ngi leen di dégg ñoom sax du ma leen wuyu boo ñu ne yéefar la. Mm. wallaahi as. xaw ma amnistie la xaw ma lan moo xew je le dis je parce que pouvoir bi mu amoon war ma mën a faagaagal ba man ma génn Sénégal te yeggaguma ci condition yi tax man ma je sais que amatul pouvoir boobu te wallahi al azim boo Sénégal yëpp bàyyi ma man Moussa Fall sunu bët yi bu ñeentee dinaa ko rey et je le dis na ko Sénégal yëpp dégg je le dis sur une plateforme suivie par presque tout le monde man maa ko parce que dañ si yegg taxoon ma bàyyi sama njaboot dix ans moo ma dese woon pour ma retraité je devrais partir le septembre ma bàyyi lépp jël avion ñëw fii parce que combat mun ma ko woon mëne Sénégal parce que bu ma bàyyil woon tamit gendarmerie ñemewuma génn di bind page Facebook kan boobaa dañ may dëj faute lay nekk pour bañ a tooñ j'ai sacrifié le reste de ma vie ma bàyyi ay doom bàyyi soxna ba fii may wax ak yow depuis novembre Moussa Fall il arrête mon salaire il arrête sama indemnité sama benn remboursement un franc duggul sama kër ba fii may wax. ci am jamono wallahi ak koor gi ma wor dogooguma tey loolu tey laa ko wax non du xaalis man ñëw naa fi quatre jours laa def suturaal ma quatre non mais bon na nag quoi yow da ngay topp nit salaire am ak bu ko too amul waay ki dëmm la waay non kii dëmm la waay c'est juste pour dire aux gens man ànduma ci ak benn kilifa laa dese sama ñaari kilifa laa dese sama àdduna mooy ki topp sama papa ndeysaan tey rek rek rek rek bi may yeew sama jaww a quitté Koumpentoum chaque jour mu def trajet ci mag mu oh. oh. xam ne buñ ma waxee ma bàyyi dama ne ne ba yóbboo ngeen bàyyi ma yéenay sama waajur tey. Hmm. yéen laa a dem na ku ci nekk ci yéen bu ngeen ma waxee bàyyi sax bàyyiwuma Moussa Fall ba keroog may dee alaaxira lay jeexee te man maa wax. kon dagg na sa salaire dagg na sa salaire dagg na lépp quoi éliminer la la complètement daal. ba nii nii nii nii il avait donné les instructions kenn kenn exploité sama dossier pour ma jot samay droit. non mais loolu yàlla may ma jawar service la day liggéey. Elsa Ba eh, man aussi li ma fi for yónnee sama njaboot côté boobu macha allah y' a pas problème mais c' est juste pour question d' argent question d' honneur. surtout ko nag bêtise bu def na ma Sénégalais comprendre xam ni man liggéeyuma vingt sept ans irréprochable musuma am musuma mauvaise note musuma ma sa échoué si benn examen ci sama carrière amul ku mën a taxaw ne la Amar Sarr mos naa kaa may un point pour mu jàll stage bi te ay millions millions millions gendarmerie laa doon gérer xaalis laa doon gérer xanaa gën na yomb nga def topp ma gestion nga nga nga gis ci man benn dërëm bu manqué moo gën nga toppee ay ay ay ay politique alors que yaa salfaañe xaalis xaalisu état te loolu nag xaw ma amnistie la xaw ma bayaboo man sama yoon nekku si amnistie de sama yoon nekku si amnistie je man commando laa damaa guerre huit ans doog a ñëw gendarmerie sama premier médaille Guinée Bissau te loolu action d'éclat loolu lañ tuddee jaloore ci hmm. na ko jaajëf jaajëf jaajëf kontaan dernier mot bi am na yeneen gendarme yu bëggoon dugg ñoom aussi yu yu yu mu doon jéem a rey daw. mooy loolu je voulais pas vraiment parler de cas kenn wala keneen wala dans le cadre général non je parle dans le individuel man ak moom et vraiment dama bëgg nit ñi aussi di déglu man ñi ma waxee mu naqari wala mu dëng na nit ñi comprendre man Moussa Fall dafa am waajur ma am waajur sama yaay tolloo ak yaayam jër parce que ñoom dañoo jur doom man ak Moussa Fall ñoo chefante mu nekk sama chef te lu ma chef chef chef man chefoon naa ak ñeneen nit j'ai jamais puni mosul am wallahi azim moom nag buñ ko sàmmaloon ka euh, moom bu sàmmoon carrière jàmm comme niñ ko sàmmalee kenn du ko ŋàññi moom hmm. dañ koo sàmmal carrière bu nekk général te moom dëgg la def dëgg dëggul ndànk sax xam naa ci man grand ba ma pare après xam naa mais mais kon nañ waaw damay dànkaafu ñi nar a jël seen téléphone di ma woo parce que c'est yaana beaucoup qui me suivent jot ay message nii direct mais hmm. man li ma wax man c'est décidé man dégluwuma kenn parce que li may yëg ci période boobu man kese maa ko yëg man kese maa ko yëg ak sama famille yaa ngi dégg hmm. j'ai pas quitté dix ans de service pour exiler wu dem dëkku jàmbur maa fi am xaalis nangam nangam xaalis yorul dara sinon kon du ma génn gendarmerie mais honneur bokkul ak xaalis yaa ngi man maa ne woon ba keroog may dee te yàlla nangu na sama ñaan dootuma taxaw ma doojal Moussa Fall bu ko naree def rek ma dem ci armeel yi tëdd sama wetu yaay lii moo tax ma gedd mais bu ko gisee démb bu ko gisee démb ki nga xam ne moo doon ku mu gis euh, soupçonné na ne xam nga Sonko wala jege nga Sonko mu jëm la éliminer effacé nga gis ko muy toojal Sonko lan la la def quoi yow yow lan la la def en tant que euh, un ancien gendarme lan la la def. nga gis ko muy toojal Sonko di tookal Jomaay par rapport ak lu fi am yëpp. non non hmm. man benn moment du ma ne yërëm naa de mais man j'étais à sa place pour xool yéen xamu leen tooj da ngeen di gis tooj rek xamu leen tooj lan la signifie au fond. Hmm. yëg-yëg bi mu am. moom mënu ko man loolu xam naa hmm. waaw man bu ma la mënoon wax tey. Moussa Fall li mu wax ci biir poste de commandement bi jour vote bi. bu ma amoon pour wax ko fii bu ko waxee ba ngeen dégg ko bu ngeen jëlee wax jooju ngeen boole ak dooj bu mu doojal Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko non da ngeen koy ñaala rek commencé di ko firdaawul da ngeen xam ne pare na dootul am lu ko neex ba keroog muy dee. comprendre comprendre comprendre ma li nga wax de. non non mënoo bonk non mais grand nag wax nag pour ñu comprendre la boo waxee wax juñ comprendre <laughs> bañ ko wax a gën dama bëgg xam li ngay wax quoi exactement wala ma nga may ma ci ma comprendre quoi. ma ne ci biir poste de commandement xam nga lu poste xam naa poste de commandement moom fi ñuy ñëpp di toog di xool li xew ci dëkk bi caméra yeeg nangam li xew maanaam. coordination yeeg. tout nangam nangam mm, mm. fa wax moom ci bi li fa wax. Mm. man ma jot ko en direct. waaw parce que am na ñoo xam ne mënuñu wax parce que ils sont encore sous les man mii di wax c'est parce que daf ma jaral ma génn mais tant que maa ngi woon ci biir kon du ngeen ma dégg kenn mësuma dégg ma wax du ma am droit ma wax ñooñu amuñu droit wax mais damay déggante ak ñoom téléphone li mu fa wax moom ci élection yi buñ ko génnee woon dendale ko tooj bi mu toojal Ousmane Sonko ak Basirou Diomaye. doo ci teg lu dul nga fi daawul ko ñaanal ko te xam ne na. Ah tax ma laaj la ko parce que dama cee jot a wax man. man man nag may ma politique laay wax du ma dugg ci gendarmerie parce que moom Moussa Fall man xam naa luy liggéeyam ci ci lan lañ ko doon defloo mais ñoom seen pexe bu sotti woon heure bi rey nañ sénégalais yépp Moussa Fall son programme c'était de hold-up électoral Amadou Ba pour mu écraser les sénégalais loolu lañ meree Macky Sall bay suñ jonn yàlla tey. et j'ai parlé à, à, après les élections deux jours après j'ai parlé à quelqu'un xam nga boobu Macky Sall ci biir pale def na ma lu may wax ak yow nii bu ko Moussa Fall déggoon rey na ma rey xam nga rey kon heure na ma bal ci bopp. man ñu bëri léegi laa di wax ak donc am na loo xam ne man du ma ko jaareel ci militaire yi damay dugg biir palais wala dugg man am naa accès boobu fu neen mun naa fa dugg mais Moussa Fall avait voulu def guerre rey gars yi rey gars yi pour jox affaire bi Amadou Ba. donc boo ko gisee démb muy tooj man xam naa ni lii ak yër maanaam xam naa fi ngay waxee quoi man xam naa mais sénégalais parce que man ah, am je suis informé en fait je informé bisimilah. waaw ok léegi man li ma bëgg a rek. waaw mooy. Hmm. Euh, ku amoon lu ko naqari. Hmm. ci Moussa Fall ba mu des man parce que sama naqar ci moom du jeex hmm. képp ku amoon lu la naqari ci Moussa Fall Sénégal laa ba mu daj ba mu des man mën nga ko baal tey xamul lu Bassirou Diomaye dafa ñëw remplacer euh, Macky Sall Bassirou euh, mu maayow Bassirou le président le nouveau père là mu nekk xale n'est-ce pas hmm. du xale moo remplacer foofu mag waaw ñu nommé gouvernement lan ngeen gis ñu indi ay anciens généraux ñaar ñooñu ñëpp ñoo chef Moussa Fall ñoo ko ancien ñoo ko ancien waaw waaw moom laa lay wax Birame ki nga xam ne mooy Jean Baptiste Tine voilà léegi Moussa Fall ci boppam moom retraité woon na bu yàgg dafa dem sukk jébbalu si kanamu yaayu Marème Sall waaw ah, Marème Faye Sall waaw hmm. xam nga loolu goree moom munu ko weesu ñi koy takk ñoom dëgg dëgg dëgg dëgg day diñ dignité mooy yow yaa dugg ci toog ci ndab boo lekkee ci ndab ñun ñëpp ay sénégalais boo lekkee ba ceeb bi des tuuti li ci des doo ko bàyyi sarak non loolu kay xam nañ ko si yaay Marème Faye la demoon maire ummi foofu la jébbalu woon kay même bu dëkk bi doon tàng sax dafa doon dem suba ngoon. wa waa léegi moom ba mu demee ba retraité dafa dem ka toppoon ci ginnaawam at yi mu waroon a toog Moussa Fall ñu yokkal ko ko mu toog ay atu kooku. Hmm. yoon mu demaat man dama xamul fan lay mu dem jaga ñaaw mu sukkaat foofu ñu yokkal ko. yokk moom kay bare na ca. am ah, mën na ko de comme def na ko fi kay lu nit def benn yoon mën na ko defaat. moom na dem njaga ñaaw muy sukkaat ñu yokkalaat ko ñu xool ba xam. Hmm, dafin bu ñaaw la fa def kay. c'est juste pour dire ah. tey euh, du xam nga Martin du xam nga Martin Faye Martin Faye. non kooku dañoo xam ay relation yu weesu sax. voilà donc pour dama la dama la dama lay rek dama la dóor code pour wax ne pour wax la ne bëri na la ma ca xam tamit quoi. non non la leen. voilà. voilà Martin Faye mii waaw <laughs> euh, heure bi waxuñu woon Moussa Fall moom lañ doon wax mais Moussa Fall da ko effacé complètement un vrai jàmbaar a ngi nii. Hmm. moom li mu doon wax ni i défendre Moussa Fall di dugal ay Martin di dugal ay Jean Baptiste tey Jean Baptiste nekkul ministère de l' intérieur. waaw kay non non non non gars yi dañuy fen rek. may ma rek dama koy may tuuti rek c' pour jàngal ko gis nga loo xam-xam nit ñun nekk nañu xam loo xam ne sañ yow mi li may wax nii dama ko wax ni rek am na loo xam ne ilaa yow mi bu ma leen waxee dix yor na mille yoo xam ne un aw ma droit wax ko yeneen yi maay décider bañ ko wax mais le ministre de bu mel nee ni Moussa Fall tuuti dans dix jours mën na woo Babacar Touré ne kaay li nga doon wax nii na leer wala. Ah, waaw waaw mun na ko de parce que euh, waaw mi ngi waxal na ko lu mu xamul. Eh, waaw merci waxloo na ko loo xam ne nag xamu ko tey jii nii loolu moo tax nit défendre ko ci li ngeen seq mais li mu seq ak keneen bul ci sori parce que xamuloo ko. waaw ah, dëgg la dafa def erreur. dafa def erreur graaw. Mhm. voilà man nag bon ma jeexal rek pour wax euh, ñi may déglu Euh, man man maa gerte gendarmerie kenn dàqu ma encore une fois. Hmm. malgré que yónni na ay nit di wax si télé yi journaliste yooyu sax baal naa leen parce que am na ñoo xam ne jot naa leen woo. waaw non journaliste alimentaire lañ rek gars yi ñoom journaliste lañ. grand ñu ah. continuer ñooñu buñ la perte loo temps de. militaire nga ay journaliste yi Sénégal am problème mu lekk dem kër Moussa Fall. man noonu la euh, Papa Ndiaye mi day digg Ndakaaru defoon Moussa Fall woo ko mu dugg génn commencé naan ay bomb bu mu ko sànnee fii ak sànni fee grand bu ñu la perte loo temps quoi Sénégal ñu gore bëri ñu dee ci ay journaliste rek la ñu am fen rek la ñuy def ak soob ak dem ci di cogg di cogg ak mar ñooñu bugguma sax ñu wax ci yoon benn respect ñoom ñu avancé grand ay journaliste alimentaire lañ bisimilah. yàlla buñ ma dàq sax. waaw acca acca kon kon ñu bàyyi la. jaajëf respect respect. jaajëf respect. one love one love. yeah kooku moom xam nañ ci lu bari quoi xam nañ ci lu bare bare bare bare bare bare ci li muy wax noonu. voilà Martin fay kii. kii wóor na yàlla Moussa Fall ko nëbb moo jël place am nii. kii moo newoon kii moo topp ci Moussa faal doo leen dégg fenn Moussa Fall ñëpp lay effacé. effacé Martin fay bii nga xam ne ëpp ko diplôme ëpp ko dara kii un intègre gendarmerie ñëpp a ko respecté du def yëfu sàll mais gor mi ngi nii quoi gor da dégg ay ay ay Jean Baptiste Tine ay Martin fay ay gars yu gore Moussa Fall nekk nit bu bona bona bon nit bu bon bu yées Moussa Fall Moussa Fall ngay dégg ay Jean Baptiste Tine gars yu gore ngay ngay dégg ay biram biram jóob ay nit yu gore moo tax tey yàlla fayee leen li yàlla fayee leen li dañuy dañuy dégluwaat keneen am na koo xam ni sax moom jéem na woote ba sonn mu bàyyi mu bàyyil ma ojo damay bëgg ñu déglu audio bi quoi bismillah euh, voilà ñu déglu audio bi euh, attends

cent mille ay nekk man ma yëkkati seventy mille francs sama Moussa Fall moom tam Moussa Fall da ko toroxal tëj ko kaso moom ci bureau Moussa Fall la doon liggéeyee di gis Moussa Fall tous les jours di jokkoo ak Moussa Fall mu ngi tudd El Malick Niang benn jour Moussa Fall da ko gis dafa dugg ci Facebook am gis ko benn photo bu mu def ak usmaan Sonko bu mu defoon ak Ousmane Sonko. bañeel gi mu bañ Ousmane Sonko nga xam ne neewoon naa la bu amoon possibilité lekk ko da koy lekk mu woolu ko bureau parce que ñooy liggéeyandoo ci bureau la nekk ci bureau la nekk mu ne ko da nga xam Ousmane Sonko mu ne ko déedéet mu ne ko non dama la dama dem sa Facebook gis ne da nga am benn photo bu nga def ak Ousmane Sonko. mu ne ko non boobu étudiant laa woon mu ñëwoon euh, fi ma dëkk bonk ma photowu ak moom mais miinu ko xaw ma ko fekk boobu dañ doon def benn cagnotte quoi benn cagnotte bu ñu bëggoon def defal seen benn mooy Mouhamed euh, kii Mouhamed euh, bi bi bi bi yoroon lacrymogène bi sànni ko loxo yi dagg foofu tam lu bari xam naa ko fa mais bëgguma sori foofu Mouhamed Diop. bi nga xam ni loxo bi da doon jël lacrymo bi di ko sànni et tout ça mais moom maa ngi dossier bu grave moom it Mohamed hmm? voilà Ibrahima Mohamed Ibrahima Ibrahima Ibrahima Sall hmm. bi lu ma ci xam bari na de damaa def toog tekk rek di xool hmm. Mohamed Ka bi mooy Mohamed Ka Mohamed Ka dama jub Mohamed Ka voilà Mohamed Ka maa ngi say photo nag maa ngi say photo maa ngi ak euh, yow sax laa doon wax ci euh, Casa de Papel Casa de Papel hmm, Mohamed cey Mohamed waaye booy bi bu muy cotiseel Mohamed boobu Mohamed dóor na ay million ay millions la dóor ci Casa de Papel ci doomu Macky Sall bi moo ne woon garde corps am rapproché mais tey moom taxu ñuy wax moment bi booy bi ndeysaan di liggéey Mohamed Tony Ka di ko dajaleel boobu Mohamed moom door na ay million paquet ay paquet paquet paquet paquet nekk élément GIGN doon garde kii nga xam ne mooy Ibrahima Sall mooy kassa de Papel histoire boobu tam am benn mbër bu dee à la fin histoire bu garaaw nga noonu nag mais saa yu mu ko annoncé rek république bi di yëngu partout appel yi kàkk tànk tànk tànk tànk tànk tànk ay eh, histoire boobu histoire boobu garaaw na jëllaay wallaahi wa taala mais ñu continuer musuma ko réaliser ndeysaan saa yu ma ko bëggee def rek dëkk bi tàkk dëkk bi tàkk sama nopp yi di tàkk portable yi di bomb kalaat bum bum bum bum bum hëpp éey yaay àdduna bii moo tax xam lépp wax lépp baaxul de moo dama def teg donc ñu continuer histoire am donc moom bu ko Moussa Fall woowee bi ko Moussa Fall woowee mu ñëw mu wax ak moom ne ko da xam Ousmane Sonko mu ne ko non xaw moom Ousmane Sonko Moussa Fall nag indil ko ay problème na ko yow da ngaa xam Ousmane Sonko da nga nëbul tëj ko kaso tëj ko kaso lettre baa ngi nii le haut commandement de la gendarmerie signé par mussa Fall lettre baa ngi nii tëj lu ko kaso xam ngeen ñaata mois six mois six mois la ko Moussa Fall tëj parce que lan def na ko photo bii photo bi moo tax Moussa Fall jàpp ki tëj ko six mois moom El Malick El Malick ñaar six mois ci photo te laaj nga ko mu ne la photo bi yàgg na étudiant laa woon léegi nag mu dugg kaso def na fa six mois mu pare mu dàq ko ci avant six mois bi sax balaa moo pare dàq na ko bloqué salaire rek toroxal ko ba mu torox tot mu génn di dem ci média yi ku mel ni Walfadjri di wax ñu woo Babacar Touré comme ni ñu koy defee moom nga xam ne moom moom yëfu Moussa Fall rek lay génnee dafa mel ni Moussa Fall kese rek mooy nit ñenn ñëpp ay xaj lañ bay day saaga gendarme yi saaga ay nit yu Moussa Fall saaga ay mémoire nit yu Moussa Fall rey toroxal lépp de lépp lay saaga ndax Moussa Fall jaral xaw ma lan la ko jofe defal nag xaw ma lan la ko defal ba vraiment mu jaral ko lii koo xam ne même bu ñu doon saaga sa papa doo génn saaga sa yaay doo génn bu ñu nee Moussa Fall rek nga génn c' est incroyable incroyable comme géwélu Macky Macky Sall nu mu amee géwél Moussa Fall moom am na géwél moom moom même doomu Moussa du defal ni baayam ndax Moussa Fall benn doom bu góor la am mi ngi fii ci Canada doo saaga Moussa Fall ba mu génn ku wax Moussa Fall bo nga gis Babacar Touré kéwéloo génn mais lan la daf ñoo nëbb wala nañu wax lu am dëgg-dëgg ñu xam ne grand Babacar affaire bi nii la demee vraiment donc kii Moussa Fall woo ko moom woo Babacar ne ko yàqal deru booy bi mu dem ba jiiñ booy bi ne yow sax prisonnier nga woon dañ laa condamné te du indi mukk kayit bi wane ni booy El Malick ñaa bi dañ ko condamné amu ko fenn mu jaral ko mu dem ci plateau yi dina ne El Malick ñaa day fenn non waxul dëgg day fenn booy bi sax bandi la woon dafa musa sàcc ñu condamné ko mais mais àdduna alaaxira am na ban nit moo la war a jaral nga jàpp ab gone goo xam ni jàng am bac dem université jaar armée génn bokk ci hiérarchie yi bokk ci ñiy liggéeyal Moussa Fall nekk ci bureau yi am xam-xam ñu toroxal ko ci ay photo benn photo Moussa Fall tëj ko six mois mu génn di naqarlu dàq ko muy lu ngay génn di yàq booy bi nan ay dafa sàccak dafa dañ koo condamné lépp pour défendre Moussa Fall donc moo tax man bu ñu ñëwee di ma ay waxu Babacar Touré loolu dama si di que sincèrement loolu erreur la je vais pas le vouloir quand mais erreur la te c' est pas la première fois nii la dernière fois dañ ma yàgg a boole ci ki nga xam ni moom mooy Babacar euh, Kéwoulo mais musuma bëgg mu ñaaw mais dañ ma yàgg a boole ci moom foo ko nit di meree Moussa la mu war ko xoolaa mu war ci xoolaa boppam donc ñoom ñooy wax nii. beneen gendarme ne ma Moussa Fall assassin la et ce ce qui défend xaw ma fu ñu ko teg moi je suis gendarme et chef de troupe sur le terrain et durant les manifestations Moussa Fall nous avait dit qu'à partir de 19 heures considérez tout manifestant comme un malfaiteur et n'hésitez pas de l'abattre c'est un chef de troupe moom ma envoyé message bi et n'hésitez pas de l'abattre Moussa Fall est un criminel dans le sang donc li ay gendarme ñoo ko ñoo ko bind wax ko am na ñoo xam ni envoyé nañ ma explication yi bari te mënu ma ko teg donc personne ne peut dépendre défendre Moussa Et Moussa Fall va rendre des comptes des 87 personnes yu mu massacré kenn mënu ko defendre fii dina fay ay journalistes parce que milliardaire la alal gu bari la sàcc ci naar yi surtout les libanais maa ngi koy fàttali premier problème bu mu njëkk a am pale bu mu nekkee gouverneur moom ak Jean Maxime ba Jean Maxime nangu accès entrée pale bi coow li ne kur bu doon Macky Sall du fa duggaat ndax ay libanais yu fa doon jaabante yu mu doon raqueté c'est un très grand racketteur le général Moussa Fall quand Tanor Thiendella Fall bu DGE commencé di toroxal Ousmane Sonko ne du du bokk ci élection yi di def ay sale boulot général Moussa Fall ci la ko décoré ñëpp gis nañ ko képp ko bañ Ousmane Sonko général Moussa tant que yaa ngi jàpp ay manifestant di leen rey di leen toroxal général Moussa Fall da yokk grade bi nga xam ni Abdou Mbengue def na ko da ko yokkal garaat képp ku rey manifestant ak loo mën a rey boo reyee 40 da lay yokkal garaat boo reyee 30 da yokkal moo tax gars yi dañ doon rey comme pas possible 87 morts moo am dañ doon rey comme pas possible bi nga xam ni Tanor Thiendella Fall mi ngi def lu ñaaw ci DGE ne Ousmane Sonko dee rek mais du dem ci élection yi da ko woo primé ko da ko woo ci boppam jox ko médaille décoré ko médaille d'honneur te pourtant Thiendella la c'est un policier ñaar la primé woon gis ngeen photo yi ak le contrôleur Modou Diagne qui est un contrôleur général policier un gendarme parce que lan ñaar ñooñu ñoo daan xañ Ousmane Sonko pour bu mu dem ci élection yi liggéey bu ñaaw bu salte bu Tanor Thiendella Fall def ci xañ Ousmane Sonko mu jàppoon na Ousmane Sonko du dem ci élection yi mu kontaan ba primé ko woo ko woo nga ngandam maami def benn événement décoré ko médaille d'honneur takkal ko grade yi ne ko bien fait li nga def rafet na ci toroxal bi nga toroxal ne Ousmane Sonko du dem doo booleloo ko ci DGE gars yi euh, remuer nañ ciel et terre mais lank nga rejeté nga euh, Ousmane Sonko loolu kontaan naa ci mu dem primé can can can Tanor Thiendella Fall médaille d'honneur primé ki nga xam ne mooy le contrôleur aussi Modou Diagne euh, qui est un contrôleur général de la police mu décoré leen médaille d'honneur moo tax ma ne leen tóoj bi ngeen gis bu Moussa Fall tóoj xoolul ba léegi kanam de ay lunette am la sol noir fumé mu tóoj bopp bi ca kaw am na lu tax moo tax bu ñuy wax dee leen ci bàyyi xel bu leen foog ni ñun dañuy wax nii pour wax nii wax non non non no non gars yi on est très informé barke alxuraan gisoo grand bi bu muy dóor kot ma xamal ko ni kii ngay wax ci laa ko génneel nii jox ko na ko kii ngay wax bari na luñ xam de soxlawuñ ñi dem ci ñi dem ci gendarmerie di xam bari na xam ci réew mi la ñu waxul moo ëpp lu ñu wax wallahi billahi réewu Sénégal ma ñàkk sama ndey dara du fa dox lu ñu xamut lu ñu waxul moo ëpp lu ñu wax booy dóor quatre mariages di baatare mun naa la kuppal de mun naa la kuppal de mun naa la kuppal bu ma leen di wax bu ma leen di wax les enquêtes internes de la gendarmerie ma ñàkk sama ndey mosu leen dégg àdduna kenn wax leen ni ah, gendarmerie ma dokkoor bismillah kenn mosu leen wax ni gendarmerie am na ay enquête internet bu Jean Baptiste Tine jël leen vidéo yi ngeen arrière ko waxal mosu leen dégg kenn ku leen waxoon ni biir gendarmerie am na enquête interne de la gendarmerie bu Moussa mu euh, Jean Baptiste Tine def mosoo koo dégg donc on est super bien informé fépp la ñu teg sañu tentacules yi. ni ngeen ñu gis nii ba kii. am na benn gendarme bu may woo mais il faut nga woo ma cent ci 77 641 53 24 parce que fii damay live maa ngi gis nga may woo woo ma ci téléphone bi 641 53 24 gis naa benn gendarme benn chef gendarme may jéem a maa ngi live donc ñu dem man dama ne sànq dama doon wax mais dama ne gendarmerie man bu doon militaire gendarme Moussa Fall di def sale boulot bii par parle pas d'hiérarchie ay gendarmerie amul lii dama lay rendi au nom de la patrie dama lay rendi fekk la nga toog mu dóor la quarante coups au de la patrie man ne ay ah non gendarmerie amul lii les ordres sa aado danga may ordre pour ma rey nit man ne la defuma ko te boo ko dolli tey yow laay rey nga ne ah, man a la waaw ordre pour ma rey nit les ordres sa exécution ay waxi kesew kesew li nit la ko wax yàlla waxu ko yeneen bi waxu ko kon lu nit wax nit mën na ko dindi parce que du waxu yàlla du waxu yeneen newul ci alxuraan newul ci ay hadis mel ni yàllaa ko bind les ordres saa tapé kan moo la wax nit. boo ma boo ma nee rey ko dama naa lee boo ko dollee tey ma rey la ah non les ordres ma ne ko boo ma nee rey ko ma rey la yow bu rey day des rek yow lañu war a rey kon bal ci bopp bu ma armé du ma rey nit de yow laay dóor bal ci bopp billaay wallaay wa taalaay on le pas de dérangé on parle d'honneur nit ki da rey sa bopp ngir sa askan da ngay jaay sa bakkan ngir sa askan ngeen may raconté ay affaire tàppet yooyu noonu dafu ragal yooyu doo leen xeex pour seen pour seen honneur pour seen nation chaque jour seen poche bu ñu leen di salte sale boulot dañ koy war a def parce que lan pour am dépense boo leen lekk à quoi sa sert lekk boobu ngay lekk directu jàmbur rey nit après dem toog sa kër di lekk loolu yëfu nit la yow ngay dëmm ki la wax rey ko ngay rey loolu mooy dëgg sa biir nation sa sa askan nga leen di rey ñu jël leen daf leen ay xar ñu fii ci nangam nangam donc kii mooy Moussa am na nag euh, gars yi bëgg nañ dugg trop xam naa ni euh, ñu ngi may ñu jéem woo rek donc Moussa Fall mooy lu président Diomaye wax ak ki nga xam mooy premier ministre Ousmane Sonko di ngeen ko gis au banc des accusés mois de mai bii lay retraité lay retraité waat lay retraité waat mois de mai bi lay retraité waat bu retraité waatee nag dans mois deux mois dinañ ko teg au banc des accusés 87 morts yooyu du ven jamais reddition de comptes incha allah bu soobee yàlla kenn nag ñaar ñoo fi nekk nag di wax waxu Moussa Fall te kenn ci ñoom du gendarme kenn ci ñoom du juge kenn ci ñoom du avocat kenn ci ñoom musul toog ak moom bureau kenn mooy Papa Ndiaye mi day digg Ndakaaru ak Babacar Touré Kewelo ku ko gëm nag yow ñoom la neer man yow ngay wax ci Mollah Morgun nga ne ko foo ko xamee mu ne la ci internet waaw ah, mais kooku du ki nga xam ci internet bi kay kooku Mollah Morgun activiste la boo buggee xam Mollah Morgun da dem nga laaj ko kilifa parce que kilifa moo dëkk ak Mollah Morgun di yeewu di jóg ci même mat laa di lekkandoo bañ a dugub di naanandoo café kilifa moo xam jikkooy Mollah Morgun yow xamoo jikkooy Mollah Morgun yow Mollah Morgun boo gisee ci live ko ko gis muy doon dem yoonam ñëpp ñu gis laa Morgun ci live gis ko ci dund mais dañoo gis ñaari nit yu différent dañoo gis nit bu calme nit bu. taalibe nit buy waxtaan ree mais bu ko gisee ci internet bi dañ naan du moom donc yow mënoo juger Mollah Morgun ci internet dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu nit mënoo koo atte ay mbokkam ñoo koy atte nit mënoo ko waxal bu fi fekkee vite fait la nii ngeen seq dara ñu jox la benn cent mille deux cent mille nga dem naan ku baax la euh, doo gendarme musoo toog ci euh, campement euh, cantonnement militaire xamoo dara na parce que da lekk dix mille wala cent mille arrête ferme là laisse aux gendarmes et les gendarmes ne vont jamais dire dans la vie que Moussa Fall ku baax la c'est pas du respect c'est pas du respect ça bunul dara sax nga cërale ñi ñi ñi ñi fi rey nga cër à la à la mémoire des gens yu yu mu fi yu mu fi liquidé lan la leen Moussa Fall war a mun a jox ba ngeen toog fii bu ko doon l'avocat di jaabul lan adduna bii nga xam ne dara saxu fi lan la la Moussa Fall mun a jox wala lim la defal li gën bakkan doomu aadama lu mu la mun a defal lu gën bakkan doomu aadama lan la. Papa Ndiaye nii la defoon mu day diggu Ndakaaru gisatu leen ko fenn moytu leen Moussa Fall da leen di dayloo diggu Ndakaaru te yéenay am gàcce parce que sénégalais yi leen leen fexe fexe fexe ba Moussa Fall set ci seen kanam affaire yaa ngi nii démb ak tey mënu leen fee Moussa Ka waane tëb di dal ba am ku leen jur ku ñu gën ndey ba ngeen ñu mun a waxal leneen lu ñu gëmut lu ñu gisut ñun ñoo gis Moussa Fall di rayee ñun ñoo gis Moussa di tiire ñun ñoo gis Moussa Fall barricade kër jàmbur ñun ñoo gis Moussa Fall jàpp fi nit dugal ko ci oto toroxal ko photo lépp jox ko Anita mu mu partagé ko ak ay xawma ay dëgg dafa nëbbu ñun ñoo gis Moussa Fall di toj oto jàmbur ñun ñoo gis Moussa Fall di gaasawaate ñun ñoo mu gis Moussa Fall mu naan tiire ñuy tiire donc bu leen ñu fontoo laa la wax respecté leen ñu Babacar Touré Kewel laa waxal ak ki nga xam ne moom mooy Papa Ndiaye mi day diggu Ndakaaru duñ seen morom. réew mi dañ ko bokk ak yéen du jàng bu ngeen buñ xamul du xam-xam bu ngeen am bu ñu amul lu ngeen li ngeen di def du rôle d'un journaliste rôle d'un griot la d'un griot moderne rôle d'un caga ngeen fi nekk di def am leen respect ci nit yi ñu rey am leen cër ci nit yi ñu rey képp ku naan da nga defaan Moussa dañ Moussa Fall dañ la war a jàpp parce que tu es complice Moussa Fall est meurtrier kuy wax ci waxam wax nga nga xool ci Didier Badji war a mun a arrêté ak ay gendarme yi daw te mu bëgg leen rey kii bokk na ci ki ma dugal nii ak ñeneen ak ñeneen ñu yàq seen liggéey ñu mu disparaître loo Didier Badji Fulbert François Mancabou lan moo fi jar lii lan àddina la leen nit mën a jox pour ngeen bëgg a taxaw l' avocat donne son avocat du diable toog ci média yi di fenn ak dajale rek quoi vous n'avez pas honte comment demain vous pouvez regarder les gens comme ça la tête haute. allez Didier Badji un gendarme bu mu fiy disparaître loo kan moo fiy kii ah bu la ñu wax la waay saa fal di sàcc. raykatu nit ñu xam ci dara nga naan ñoo leen waay yow te ñoo gën a informé ci Moussa Fall Babacar Touré Kewelo ak ak ak ak Papa Ndiaye bu ñu leen boolee laa maa leen gën a informé ñoom ñaar bu ñu leen boolee maa leen gën a informé fu ñu dugg sax mën naa ko wax Papa Ndiaye bu mu duggee pale bu mu génnee man maa ko wax ba léegi ci la lem gennam yéen ngeen ñoo gën a informé yéen yéen foog nga mën ngeen fee wax dañ leen di woowee journaliste rek mais tollu leen ma ci wee ci xam ci ci li ma xam ci réew mi dara xamu ko ci réew mi. vous pensez que mën ngeen nax nit yi comme ça ah. am leen respect ci doomu adama yi waaye ak si seen xel ngeen di insulter la mémoire des gens comme ça di insulter l'intelligence des sénégalais musa Fall li Moussa Fall oh, ku ko nangam ak nangam. ba gendarme yëpp di mer ko ne di ma woo naan ma mais seen waa ji kii kan la mais moo laa yow dafa mel doo wax ci moom c'est la première fois moo wax ci Babacar Touré Kéwoulo yéen a nga doog a dégg ñëpp ñoo ko ñëpp mus nañ ko fi attaqué sauf man musuma ko attaqué c'est la première fois te yàgg na wax lu mel nii ñu may boole ci moom par respect ak estime mais trop c'est trop gars oh trop c'est trop bu ñu commencé lafal aji saar ba léegi toogal nga ma fi laajal ma fi n'importe quoi ak n'importe comment musuma tontu musuma fu fu ñuy attaqué musuma wax ci yow mais c'est trop c'est trop famille ñi ngi souffrir famille yu Moussa Fall rey ñi ngi souffrir famille yu Moussa Fall toroxal ñi ngi souffrir famille yu Moussa Fall disparaître loo ñu disparaître loo ngi souffrir un peu de respect à la mémoire de ces gens un peu de respect ci cër nga cërale sénégalais au moins. bañ a jël benn criminel la dañ koy sang à grande eau nga am tuuti honneur ak dignité ngeen xool ci sénégalais yi xam ni gënoon leen leen nekk nit te gënoon leen leen yeewu jox leen leen cër dama leen ñaan ngeen jox cër sénégalais yi yaa war a wax taxul nga leen di fenn yaa war a wax taxul nga foog leen jàppee leen dof yaa war a wax taxul nga neen da leen di jéem a manipuler opinion nationale bi dama ne il faut arrêter man aw ma benn respect ci yéen li ñuy wooye ay journal bañ naa ko ba kereel naa leen tur ay duul naa liste yéen duul rek ngeen di def un peu de respect les Sénégal dañ ko defar Moussa Fall day rendre compte xam na loolu Sonko a bien fait ñu bàyyi ko fa toroxal ko moo tax démb torox na mooy lu grand bi di wax ni waxoon naa leen ko ils avaient tout fini Moussa Fall ils avaient tout concocté teg ko ba mu rafet Sonko dafa war a nekk ci kaso bi loolu Moussa Fall waxoon plan am Sonko ci biir kaso bi Diomaye ci biir kaso bi Amadou Ba hold up électoral quatre jours nee na quatre jours lay écraser sénégalais quatre jours quatre la joxe woon quatre jours quatre mu def bain de sang rey sénégalais yëpp gars yi dellu ci kër yi nee na quatre jours quatre quatrième jour cinquième jour sénégalais duñ génn conseil constitutionnel génn déclaré ne Amadou Ba gagné na premier tour cinquante quatre et quelques pour cent lii nga xam ni euh, suffrage yi euh, Diomaye am ni gagné ko moom la Amadou Ba doon def ba cinquante cinq barke alxuraan lii la décidé moom lay wax nii ma ne ko xam naa lépp xamu koy nëbbutu mais man moom non non non xam naa de ak maa xam lii waxoon naa ak bu yàgg. lii la décidé woon cinq jours la joxoon Amadou Ba pour écraser tout le peuple sénégalais hold-up électoral Macky Sall faussé lépp Ousmane Yara nekk ci liggéey ci lu rafet faussé yëpp foo ko wooyee gars yi koy tawal tawal Moussa Fall bu la gisee da lay lekk moom laay ba biir palais la wax gars yi ne ko bu gisee da lay lekk Moussa Fall mu noon rey Macky Sall day rey Macky Sall billaay wallaay wa bi Macky Sall di génne Sonko ak Diomaye jour boobu bu Moussa Fall gisoon Macky Sall da koy dóor bal ci bopp ndax denc bu en bu mu ko enaloon programme yëpp la faussé moo tax démb ngeen gis Moussa Fall mu aj bopp bi comprendre le ma leen di wax lan moo tax Moussa Fall fixé wul yëpp nii généraux yëpp nii lañ def Moussa Fall nii la def sol ay lunette nii vert noir fii nii ba léegi xool ba léegi xool. ñépp nii lañ def ñooñu ay généraux euh, euh, euh, de de l'armée lañ ñii de terre général de maire général ñoom ñoo taxaw foofu Moussa Fall li ngay def boobu ñoom ñëpp la ngi nii nii seen relax Moussa Fall mi ngi la ko tëj naj bun gi naj bun gi ba mënul doxat ba air dugul naj bun bi lok doxat loolu la ñuy wax lok doxat lok lok doxat nii kat naj ko ba ci kaw oh kii bu doon moo tax ma ne gàcce bu doon rayee kii dee na bu yàgg kii eh, laal leen ko ba xam mi ngi dund kii est-ce que du monument Moussa Fall nii lay def ko oh, ah! ko xam histoire bi mën a wuy sama nday ah yàlla mun a toroxalaate nii lay toroxee ba bu muy dee man je connais l'histoire moo tax ma jóg won leen ko je connais l'histoire lu fi nekk am na lu muy signifier billahi psychologiquement il n'était pas bien il était mort parce que yàlla mi ngi naan ko mi ngi naan nii yàlla naan ko ay koy toojal allahu akbar fii man rek maay buur Macky du buur kenn du buur man allah maay buur yow koy toojal nii amul fitu sax xool ñoom Sonko ni nii bopp sama yaram di daw ma allah film bi di ñëw bum bum bum bu muy dajji oto Sonko bi kan génne yuuxu génne dem daqe ko nemmee tuur dugal ko ci blende bi yóbbu chaque guddi Moussa Fall ñëw kër kër kër ñoom Marème Faye Sall yaay Marème fay fa la nekk ñëw dugg gars yi eh Moussa yow kii dama koy lekk kii dama ko je vais le déchirer je vais le tuer toog nii tey naan nii ah, di yéegal bopp rus nga rus ngaa rus ngaa xool nii nit ki nga ni di yëg tuut moo tax toroxalu démb bi du Moussa amati ci àdduna Moussa Fall dee na bu yàgg dee na te nii nag laa ñaan Ousmane sonk ak président Diomaye téye ko nii nag. ba bi muy retraité di ko toroxal ay waay ay ku ne woon Moussa Fall di def nii ci ginnaaw ñoo démb suuf si yëngu na te yëgu leen ko Sénégal démb am na tremblement de terre ca palais te yëgu leen lu xew ki doon bëgg a lekk waa ji moo taxaw nii di ko tóojal di ko garde à vous billahi quelqu'un ki avait promis la tête de Sonko à Macky Sall ne ko damay tagg bopp bi indi jox la billahi wallahi moo taxaw nii <laughs> yàlla du nit tey hey waaye démb Sénégal yëngu na te gaa yëguñu ko Sénégal tremblement de terre am na démb yàlla yëngal na suuf sax ba muy màbb laa la wax ca pale ba gaa yaa ngi toog di gis défilé ñoom xamuñu sax lu démb démb honneur et dignité démb la yàlla wane boppam démb la yàlla taw jalaal ci kaw Moussa Fall démb la Moussa Fall dund safara jaxanama ci kaw suuf barke alxuraan démb lu Moussa Fall dund safara jaxanama ci kaw suuf wallahi Moussa Fall na lawul mun naa ko jiñ ci dara yi Seydina Mohamed Moussa Fall nalawul te gisoo ko dara balaa ngaa dem dinga nga torox tot yow sa alal ak sa lépp di nga torox tot tot. gaa yaa ngi ñëw de ñi nga dàqoon ñëpp a ngi ñëw fu ne amatoo doole gaa ngi ñëw de ñëpp waa ji commandant bi day ñëw gaa yëpp dañuy ñëw. leet naa colonel yeeg ña nga doon wër ak nga doon jéem a dañuy ñëw yow xamu nooy dëkkee nooy dëkkatee senegal bon yées dina la leer. man nag ñeneen ñi moom laa amal affaire gendarme yi ñoom nee nañ dañuy dem te ñoom dinañ fayantoog Moussa Fall dans un mois di nga dégg gars yi dinañ sifaay Moussa Fall ba ba soit justice day teg wala ñoom dañuy fayu parce que ay militaire lañ ah Moussa Fall dafa dafa dafa seen dignité ak seen honneur la bafoué toroxal leen seen yaay yi di dee ci ginnaaw tëj ñii six mois rey ñii nangam nangam peuple bi bu fayul militaire dañuy fayu mais man moom ak mbaam xuux yi di doon laay fii aka fen aka sos dëgg day nëbboog dëgg wunta nëbboog bu ma ñëwee ngeen xam ne man raag rek laay def incha allah bu ma ñëwee raag rek laay def barke alxuraan nee naa leen lu ma leen waxoon te dama leen ko gang laay wut gang xam naa fu band yi nekk dëgg yi fu ñu nekk yàgg naa dugg ci jeel yi di génn xam naa leen xam naa fu ñu nekk dinaa fa dem danaa rengagé dinañ armé wu jusqu'aux dents te dinañ leen songi loolu moom maa ko wax fii ci Sénégal bañu ma ci ma ñëw lépp laa indaale bañ naa ko ba sama lépp laay kii lu ma mënul kii sax lu ma fi yor mënu ma ko kii sax dama koy jaay pour xam ne man moom jeel danaa fa dugg te ma fa duggee ngi dëgg wa nëbboog ñi fen yu taxaw yo non man maa leen di man maa leen di topp man maay le Jérôme Bandiaki le Jérôme Bandiaki de Pastef le Jérôme Bandiaki de euh, ki nga xam ne mooy le président Diomaye Faye je suis le Jérôme Bandiaki te amoon ngeen seen Jérôme Bandiaki je suis le Jérôme Bandiaki ay booy tàng yoo xam ne dañoo am lu leen metti jaar ci armée bi xam nu ñuy téyree xam kalachnikov RPG 7 AK 47 Magnum 47 ah 44 Magnum 44 yor ay naan milimil la ay M16 armée leen jox leen ay 4-4 ñuy wër leen man je suis je me déclare Jérôme Bandiaki de Pastef le Jérôme Bandiaki on appelez-moi le Jérôme Bandiaki de du président Diomaye Faye je suis le mu Bandiaké du président Diomaye fay naa leen woon nan la ñuy tiiree ak nan la ñuy reyee nan la ñuy tiiree ak nan la ñuy reyee yéen dafu leen sax bu ma ñëwee rek dëkk bi tàng jër jër jër jër jër jër jër jër jër kay illaahi wallaahi mafia gang wàcc wàcc rek wàcc tëg tëg tëg tëg bu ñu ma ci jeeleem gars yi tasaaroo ma ma bëlëng ko fekk wàcce naa leen ñoom ñëpp di ngeen yaru par force yaru par force di xam ne seen nguur jeex na te da ngeen di jaay digi di ngeen xam incha allah kon nag sama gars yi ñu def noonu yoo bu ñuy gënaat prochainement dina leen gën a ñëwal ci gouvernement bi soobee yàlla on continue le combat léegi nag justice day am justice day am justice day am voilà damaa wóor na dama ndogu quoi oh, maa ngi ñëw maa ngi ñëw yi maa ngi ñëw dafa am dafa am lu ñu war a régler maa ngi ñëw kenn munu wax lépp tamit te leen di sës nit ki ci miir ba dafa am fu jëm maa ngi dégg sax waa APR yenn yi <laughs> nee nañ man man ma këyit quoi damaa xaw ma damaa dugal refusé <laughs> man mii wër Japon xam fa xam fa konnichiwa wër Corée du Sud ñëpp gis ma fa sewul manaan kam saa mi daa wër Europe ba yëpp wër Amérique aw ma këyit ba ma ñëw ba Canada di di fi wut refusé <laughs> ah kon de xaw ma fan la ku lekk mbaa kañ mbaa kañ lekkul sama këyit ya waral leen ma kañ bu lekk sama këyit ya nit ñëpp àdduna yëpp dégg nañ ma Corée dégg nañ ma Japon dégg nañ ma Singapour Europe bi yëpp wër naa ko ñëpp xam nañ ci Europe laa mos a dëkk te yàgg naa ñëw Sénégal xeex yëpp gis nañ ma fa ay aller retour ma toog ba léegi toog fii amu fi këyit <laughs> waaye waaw loo wax ci loolu dégg a waa APR nee nañ mënumaa ñëw aw ma këyit quoi dama <laughs> dama kii lu mu di révisé gars yi li ma leen yàqal métti na laay révisé toog ba léegi di révisé Canada yaa 2016 laa fi commencé ñëw 2016 dugg la ma révisé 2018 ma ñëw fi damm fi glace gi fakkastalu ci glace gi damm fi tànk dem faji ji France Europe bi ma yor samay këyit retourné waat ñëwaat ba léegi ma toog ma <laughs> toog di liggéey am sama contrat de travail am lépp waaye aw ma kayit <laughs> waaw affaire ñoo jommi de ne ne damaa dugg révision aw ma kayit kon man man yan kayitoo ma doon voyage lo yan kayitoo ma doon kon ban kayitoo ma yóbbu Japon ban kayitoo ma yóbbu Singapour ban kayitoo ma yóbbu Corée waaw ban kayitoo ma yóbbu Europe <laughs> dañ koy jëli mënoo ko jëli nga jommi léegi ma ngay waaj a ñëw nga ne nga ne non non ñëw amul kayit bu mu amul kayit kay mënoon nga ko fee jël fen rek la ñuy def fen rek dañuy fen rek après fen rek te duñ la mus a tegal kayit mu ko <laughs> mais dama leen yërëm quoi c'est APR APR bu ñu newul benn Adji Sarr jigéen ñi Adji lañ góor yi Macky Sall la ñuy def fen <laughs> waay gaay dañoo fen ba daanu bàyyi boobu baaxut da na a fen a fen fen fen ba dëkk ba tàkk fen fen fen ba ñuus seen maam fen fen fen bañ fekk leen pale fen fen fen ba bulee leen ci biti fen fen fen ba nokk leen ba bàyyi leen fen yi te jéem a xool li leneen pour jéem a xool fen moo leen toroxal nii fen moo tax ngeen ñàkk pouvoir fen fen waaye changé leen tuuti wax leen dëgg te xool waxam lan lan la dëgg di joxe commencé leen di wax tuuti dëgg pour xool lan la dëgg di joxe peut-être da ngeen di am changement mais fen moom mënu leen ko amaat fii dara fen gaa yëpp dañ leen weddi ci fen fen moo tax réew mi bàyyi leen fen moo tax 31 pour cent ngeen am fen moo tax Diomaye Faye am cinquante 54 jàpp cinq ay waay fen bu la toroxalee nga jóg ngeen jóge 50 nangam torox ba mujj 30 et quelque ngeen bàyyi fen APR bàyyi leen fen fen rek ak manipuler nii lañ defoon sama video bi ma ne sénégalais yi jóg leen taxaw xeex leen boo leen ko seetaanul Macky Sall éliminer Sonko bu boo leen seetaanul nii boo leen seetaanee dina éliminer Diomaye te bu boobaa kenn du fa des Amadou Ba rek moo fay nekk moom ak ñeneen ñi te bu boobaa moom moo leen mën dañuy sàcc jox ko ñu dem dagg loolu Amadou Ba moo leen mën dañuy sàcc jox ko bàyyi bàyyi li ma wax de <laughs> non mais ñooñu te loolu teew daanu nañ xanaa ci lañ war a noppaliku ah réew mi moom metti na de ñu éliminer Ousmane Sonko ne Diomaye dafa war a wuti parrainage mooy numéro 111 man ni sénégalais nañ taxaw xeex jàmmaarloog bañ a ñàkk fayda Diomaye dafa war a dem ci élection yi par force sinon boo leen ko deful Amadou Ba ñi fi des ay parti sànq lañ soosu parti su ndaw soo da leen dóor ba ñuy bëgg a dee dem yoonam dañuy sàcc kon moom la ñuy jox pour gi ñu dem daaj Amadou Ba da leen di dóor ñu ko nag sànni ko seen seen page yu faux ak ko ñëw bëri <laughs> page fen dañuy propager fen bu bu bu page yi ñu sànni. mu ne fa nag Amadou Ba da leen di rajaxee da leen di dóor fekk xoolal dindi nañ lépp dindi nañ lépp dagg fa foofu lañ ko daggee waxuñu naa ay bu lu may wax sénégalais pour am leen fulla fexe ba bu ñu éliminer Ousmane Sonko ak Diomaye dafa ñu ko de ñu dem dagg Amadou Ba da leen di loolu ko <laughs> loolu lépp fen malgré fen yooyu yëpp manipulation yëpp dóor nañ leen ba toog seen kaw ba léegi jógagu leen bàyyi leen fen APR bàyyi leen fen Amadou Ba sax bu ngeen doon fenal bàyyi na leen moom day bàyyi seen parti ba bàyyi leen fen barki alxuraan tank yi ngeen di fen doo leen fi tekki dara ay fenkat rek ngeen yor fenkat ku futteeku taatu neen génn kooya di live ngeen yor muy fen awun ki kisi sikki kisi kii xawma awun siki awun sikki xawma benn dof bu néewi mu awun sikki muy duula ka dajale naan yor naa conteneur or yor conteneur jamaa damay jaay pétrole fii ci Dubaay fu awoon ay awoon si kiti ay daykat ay ñu futteeku taatu leen seen koy di lang mati trois pom duul ba woo koŋ yu nëpp ay xaw ma <laughs> ay ay torox rek la ñu yor Fatou Fouta tam <laughs> mais Macky Sall la torox ay dof rek la daje dof rek la dajale ay tête vide ku la gën a ci buru la fen nga ne ma kii la <laughs> xanaa di ngeen noppali ko de di ngeen noppali ko moom parce que di ngeen moom parce que gars yi duñ leen joxati xaalis moom non dafa ruslu dafa c'est triste ay ay faraato LNG <laughs> ay Fatoumata Ndiaye Fouta Tampani ay Ba Daxate <laughs> ay gars yu torox ñoo xam ni kenn kenn kenn amu ci bopp ay dof rek la Macky Sall dajaloon ñuy duul di daj ku nekk ku ñu concours maa la dàq ko duul nag kii duul jaaru góos kee daggate këpp ci aram boobu mu sama def loolu de xoolal benn discussion ma doon discuter benn waaye mu dagg monte monté monté teg xoolal teg mooy gërëm am na beneen boo xam da ko dindi <laughs> rek ma daaj yow ma ne gars yi del ne alors xam muy teg di teg di teg li muy teg yëpp benn feeñalul dara quoi muy teg di teg di teg di teg di xaar di xaar di xaar toog ba mu yàgg xam ni fii information génnu rek mu ne bu gën a important nag da ko effacé da ko effacé <laughs> ci laa mais ñi mun nañ fen caa non Macky Sall lu ko ñii ñoo ko toroxal ay Koura Macky ñii ñoo ko toroxal ay nit yu torox la dajale. torox tot yoo xam ne seen lépp a torox Moustapha Xaj euh, <laughs> Dramé Moustapha Xaj Dramé gisutoo ko ñoom lépp a daw caa yàlla nañ ci yàlla musal daal yàlla nañu yàlla musal ci nguur gu jeex nguur gu torox ay fenkat rek ngay dajale waa ak ak kii Matar le Doulard Euh, le silibaar buy aar bépp caga cagabaar mataar le dollar le silibaar buy aar bépp cagabaar mataar le dollar le silibaar buy ana <laughs> ana mataar le dollar ay yërim sexe ay ma dambal jaañ mataar le dollar la cagabaar <laughs> buy aar bépp njagamaar <laughs> borom silib bi mataar le silibaar borom silib bi boobu daa bëggoon diw François xam François Hélène Guèye ab càgg gi taxawaal ma daar bëgg ko diw rek dugg ci camion xam day xooñ nag sonn nekk ci kaw wër génne benn sil xool sama silim jàmm sama silim jàmm ko fii ma seen biir ay caga ngeen yéen ñëpp daar la duulaar la silibaar buy buy aar bépp cagabaar <laughs> ay yo ñi ñoo torox may mu na nduur fay nag may mu a paaka mburu fay paaka mburu fay da xoolal fii la wax ne daa fii la wax ne dañ koo kii de fii la wax ne dañ koo gaañ dañ koo jam mu tourné takk fii ñiy waxati mu ne day porte plainte ba léegi jàpp ñu waaja <laughs> bàyyi leen jëkkëru jàmbur yi bàyyi la may munam paaka mburu fay bàyyi jëkkëru jàmbur yi da la doon rey na da la doon rey kenn seddoo koy baaxul yow yaa am nga jëkkër doo doo bàyyi koy jaam doo koy jëkkër ji ngay fooyee ah dafa doon rey nag waxoon naa la ko nag voilà na nga moytu na nga moytu boobu ba léegi na nga muut <laughs> da ngay da ngay këf koy koy jàmbur bàyyi leen koy jëkkër jàmbur yi bàyyi leen koy jëkkër yi ngeen di agressé ak da doon rey paaku mburu agresseur dina yor paaku mburu paaku mburu mu euh, ba léegi amul plainte amul arrestation affaire ba seey na de France dali xam den agression ba xam ne ndeysaan ak ñu nax yenn dul naa li si génn euh, nous déplorons cette agression tentative de crime tentative de crime criminalité euh, euh, dul naa li si toog nag ñoom xool ne dañuy conférence xamuñu fu xamuñu ni kii jëkkëru jàmbur la doon këf kooyu jëkkër jàmbur ja këf kooy këf kooy kooyu jëkkëru jàmbur la këfun jabar ja yónnee gis naa photo waa ji ko agressé sax xam naa ndax jox nañ ma photo benn mbufur la sax espèce mbufur nii moo ko moo ko ñuus paaga na ko bàyyil jëkkër jàmbur ji ñu toog nag xamuñu lu xew ñu dajaloo nag. waaw <laughs> le comité de journaliste du Sénégal <laughs> des journalistes Euh, nous, nu nous appelons à beaucoup de vigilance, très dangereux. Même n'a pas que Mouroufaï euh, a subi une agression extraordinaire internationale, interplanétaire. Elle a euh, malheureusement, Dieu l'a sauvée, mais sinon, elle allait être déchiquetée en morceaux. discuter un morceau euh, pour cause pour laquelle nous appelons nous l'association des journalistes du Sénégal à beaucoup de vigilance de protection et de sécurité parce que vraiment c'est super dangereux mais man Bakh Mbour Faye euh, euh, vraiment aller suivre l'un des attentats les plus meurtriers du de l'Afrique du Sénégal en nature en général en quelque sorte donc ñu wax ko ci wolof hmm. ñun ñooy journaliste yi nga xam ne ñoo représenté Sénégal ñu journaliste yi daal maanaam ñu mën a fen ay madame Baldiagne ay yéen donc euh, sañu nit ki nga xam ne mooy may mën a paaka mburu fay euh, dañ ko doon rey dañ ko doon rey attentat la attentat extraordinaire meurtrier boo xam ne kañ bi mën na leen ceddee parce que sincèrement bu ñu ñëwee di ko agressé dafa tëb naaw kat bu mu téye ci paaka bi waa ji yu cax paaka bi paaka bi dagg tàgg loxo bi mais finalement euh, fii fii la fii lañ gisoon mu bënn mais buñ ko gisee ak Macky Sall fii la takk donc euh, vraiment ça montre que waa ji fii la commencé woon bu nga xar bu ko fees jëm fii donc bu mu bëggee xar euh, loxo bi muy bëggoon xar loxo bi loxo bi ci la may mun a bañ bañ après paaka bi jam ko fi mais daal en quelque sorte xamuñu nañ lañu mun a def boobu finalement mu takk ko ci baaraam bi donc en tout cas euh, dinañ porte plainte ñu les journalistes du Sénégal def lépp luñ mën a def euh, ba lii bañ fee amati vraiment c'est extraordinaire ñun ñëpp a tiit ñun ñëpp a jàmm yi kenn mënatul joxe ci benn information parce que gars yi ñu ngi bëgg a raayaate léegi paaka mburu la ñu yor te paaka mburu dafa garaaw paaka 108 boo doo paaka 108 mun nga bañ a dee mais paaka mburu c'est extraordinaire donc ñun journaliste Sénégal yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi métti loolu di ko naqarloo euh, euh, vraiment ngeen jàppale ñu waaw ñun la journaliste Sénégal yi masta <laughs> masta may mun a may mun a ana pelante ba ana kuñ jàpp ana criminel ba wóoy sa ndey boo yooy Sénégal lépp film la fii da ngay xëy rek daanu dee mbëkk miir fen rek ana kii ana anam Aïssata Juutal <laughs> waaye réew mi réew mi lu ne am na fi cay Macky Sall yàq na si réew mi ay satu juutal faal may mun a paako mburu fay Cheikh Yérim Seck ma dambal jaañ ay dambal sexe euh, yërim kooy sexe ay paaka mburu fay juutal faal ay sata juutal ca cay Macky na baale ñii yàq na suñu réew mi yóbbul yóbbul yóbbu leen mati trois pom yu nëb ah papa waay na nag complètement lépp la yàq tout justice lépp la yàq yaa Macky Sall moo bon cancer dëgg ngi noonu lépp la yàq moo tax gars ñëw non damay naqarlu ma leen man naqarlu ma boobu xam naa lu xew xam naa ni gars yi ne may mun a daa daa jàpp jëkkër jàmbur bi mun taga di ndulli mun taga mun taga di ko financé mu mu mu mun taga di ko ñam. moo tax jabar ji jam jël paaka mburu jox ko benn bonkal ñi ma yónnee photo muy ponkal li sol caaya nag sol garam boobu noonu ma ko yow a ko agressé ni yow <laughs> yaa ko agressé maa ko ñuus paaka mburu moo maa njëkk ñëw ne leen paaka mburu man mi maa ko noq paaka mburu benn ab mbëfër la nag ab dof la de ma nga ñuul def nii moo ëpp nag nii grand boobu sax la sol oh, xaw ma caa noonu man mi maa ko noq baaku mburu di ma ne ko baaku mburu ma ne ko baaku mburu non jëkkëru jàmbur la jàpp di jàpp di ko wulli rek di jël xaalis ba ci moom jabar ji jox ma baaku mburu na ma ñuusal maamam ma ñoq ko baaku mburu di ma ne ko ah moo tax ma génn rek ne leen baaku mburu ba baaku mburu la baaku mburu la ah moo laa ngi wax day noo baaku mburu <laughs> fu ñu génn génnul ci baaku mburu yéen da ngeen foog ne ñun dañuy tëlli nii rek di imaginer eh, eh, doucement de <laughs> réew mii fu ñu ko téye sori de fu ñu ko téye sori de paaku mburu ba paaku la de te ku ko ñuus maa ngi maa ngi photom nag ku ko ñuus sax maa ngi euh, ko ba compte ba sax mais message mi ngi fa compte moom dañ ko éliminer moom waaw dama ñëw gis compte ba dem na amatul dara compte boo xam ne lañ ko defoon pour waxtaan ak man ca affaire ba moo tax doo gis may mën a nduur fay plainte doo ko gis duñ jàpp criminel duñ jàpp ko jam affaire ba jeex na furaas dali xëddeen furaas seey na jeex na tàkk doo ko déggati fenn ma ngay ñëw dajale waat yërëm ñiy <laughs> jeex na jeex na tàkk moo tax ma ne ko bàyyil kooy jàmbur yi ka kat kooy may ma noonu duur bàyyil kooy jàmbur bàyyil kooy jëkkër jàmbur yi bàyyil jëkkër jàmbur ah voilà xanaa képp kooy la ma noonu duur fay xanaa képp moom <laughs> bàyyi paa ko mu fay may mun a paaka mu fay xanaa képp koy nga bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bu su jëkkër bu doyatul nga bàyyi nga wuti beneen mais bàyyi jëkkër jàmbur yi hmm? bàyyi jëkkër jàmbur yaa fi ubbi ab télé télé boo xam ne mënoo fay employé revenu ba kii doxut mais bàyyi jëkkër sa jëkkër doyatul nga bàyyi jëkkër jàmbur yi man loolu laa wax de bu ëllëgee dañ lay de du paaka mburu de bii bii paa moom bii di ñëwaat du paaka mburu de paaka paaka 108 la nga ma wax naa la ko nag booy boobu moom xam naa ne ak këx la war na ma 10 000 lañ ko jox xaw ma 15 000 mais gis nga bu ñu ñëwaatee du la ko dóor paaka mbuur de paaka 108 la lay daggate te boobaa bu boobaa du fii de duñ duñ la jam fii mu feeñ fii de bu boobaa loxo ba lay këppati wax nañ la ko nag mais mun na paaka mburu fay saga yi ngeen doon mu ngeen def ay sat ay a juutal faal tam même chose ñu koy juutal mu naan jëkkër ja puus puus la yor jëkkër jooju muy wax noonu waxu leen lan la de puus puus la dëkkër ji du dox dafa feebar AVC la am jëkkër jëkkër jëkkër euh, euh, Aïssata Juutal Fall jëkkëram AVC la am bii lii yëpp dafa yàqu donc kooku bu la waxee ne sama jëkkër non jëkkër ji liggéeyul def dara mi ngi toog AVC day puus dañ koy puus kon kooku xam nga ni <laughs> dafa teg benn kii am de kon xam nga ni ma nga dem fële ñu koy juutal moo tax loolu du nen de mu day fa na foo la da ngay fen gëj ngaa xam lu neex moo tax ci ñoom far Farba nga ko mun a amee parce que si dëgg dafa AVC feebar feebar la feebar la quand même mais dafa yor puus-puus tëdd ak jóg lay def toog ci puus-puus xam nañ lépp nag bul ñu wax loo wasalaam